Assalamualaikum, assalamualaikum mbokk yi Sénégal ñu ngi leen nuyu yeen ñep di leen ziar di leen jox seen way yeen ñep di ñaan suñu kàddu yi fekk leen ci jamm waye di sakku ñaan yi ci yeen ngir borom bi defal ñu jamm jamm nak bu ñu koy wax bukul ak jamm ji sénégalais yi jamm ji may wax man bukul ak jamm ji Sénégalais yi di wax ndax jamm ju may wax moy jamm ju tegu ci dëgg jamm ju nafiq genn jamm jo xam du tegu ci kumba am ndey ak kumba amul ndey jamm jo xam xamul aw santu cher ak santu balu fugu jaay jamm jo xam ñepp dañuy yam ci li ñepp bokku kenn ku ci nekk la cey sa àq ñu jox lako jamm jo joo ñakoy doxal dañuy nekk nit ñu mandu di atté té namu gëna gën Jamu joo xam ne ñii duñu sañ am lol, jël di ñëpp bokk aaki moo ko ko jal ko ba mu jàllu di ko lekk te kenn du ko wax ñenn ñi ndóol loolu ba yor seen i pot di lekk te boo ko waxee ñoom ñi ndóol ñi yor seen pot yi di lekk ñoom ñoo lay tam dëmm ne bàyyil borom sant yu seer yeeg ñi nekk ci kaw di li leen nax jàmm ji may wax mooy jàmm ju tegu ci yamale jàmm joo xam ne ndaam nit ñi yemuñu nit ñi ñoo bokk benn àq mooy àq doomu aadama waaye nag mën nañoo wuute ci yu bare bare waaye wuute googu day nekk ci diggante nit ak nit waaye wuute gi wërta mën a nekk ci li ñëpp bokk te mooy réew mi lépp lu laal ci réew mi te ñëpp bokk ko ne dafa war a yem ci li ko utal sa bopp moomal ci loo xam ne ajuwul ci réew mi nga masalan tey nga xëy di liggéey yi wala nga am sa xam-xam wala say yaa xam nooy def a am ne sa morom ji amu ko am lu mu amul wala nga xam lu mu amul ci njàng wala nga dëkk fu mu dëkkul wala nga yooyu yëpp loolu lu jaadu la waaye nag li ñëpp bokk moom kenn dafa amul sañ-sañ di ca mën a am lu jéggi li ki sa li ki sa morom di am foofu laay waxee yamale kon bu ngeen duggee ngeen partagé ko mu yaatu ñu dikkaat ci suñu phase 2 suñu ñaareelu pàcc ci wàllu li nga xam ne mooy xew-xewu Ukraine bi muy les enjeux politiques internationaux on va parler de politique internationale dans le cadre donc des relations internationales la géopolitique la géoéconomie la géostratégie les jeux d'influence entre les puissances de ce monde parce que le monde est ainsi fait c'est un monde donc de puissance un monde donc de combat moo tax ma la dernière fois lu nit di jàng xeex mooy li ci wara jitu jang jàng ndax bo jangul xeex dañu la dëkk nga xeex so bañé xeex dañu la songu dal ci sa kaw xeex ak yow duma la tak la def la làppato tok ci sa kaw kon lu waay di jàng xeex ci gën kon di ñaan ku dugg rek mu partager ko inshallah ñu mëna yaatal waxtaan wi indi li nga xam ne moom la ci évolution crise ukrainienne bi li xewi Ukraine gannaaw la première phase donc de l'escalade de la crise pour les initiés qui écoutent qui savent que la crise ça commence d'abord par la dissuasion mooy xoqatalaat bu loolu Nous ñu yéeg à un autre niveau le niveau de l'escalade mooy lan bu ñu la nous ci wax a wax a wax yëngu woo ñu di le niveau de l'escalade donc le niveau de la dissuasion mooy mooy premier niveau d'une crise militaire l'esque eh, la dissuasion mooy am naa ay arme su ma dalee sa kaw boo ma moytuwul wax a wax a wax la bu doyul nag nga soog a ci beneen niveau bi mooy la niveau donc de l' escalade mooy nga ñoqali l' nag mooy cokkaas cokkaas nga waxee ci sa làmmiñ dafa njoos dafa cokkaas fi mu toll dafa wax a wax a wax léegi faale wuñ ko nag mu ne xaar leen léegi ma uti beneen pexe bu gën dëgër nag ndax comme du ngeen dégg

on est dans l'escalade guerre parce que guerre da koy nit wala nga seq ko état ngay guerre. guerre guerre amagul am ci guerre actuellement ci phase escalade la ñu dans la kon dans euh, ba mu wuñ ko mu toos mu leen leen ah mu mel ne nag bi nag dafa nekk co nekkul cokkaasu On nag cokkaasu gaynde la nag ba mu guerre. guerre. ne ne xiis xiis bàyyi ay fofam ay fof naaw naaw mu jël missile nucléaire dugal ci géej gi taxaw daal di braqué aa nguur yàlla gi ñëw na de malaaka moo taxaw na tubaab yëpp yuuxu tey ñu dee wuyaa yooyu Emmanuel Macron moo ci jiitu a yuuxu Joe Biden moom ci xew bu nekk seen sanction yi put put ganaar guñu gis naa ko mu def ci communiqué te da yaa nee na ñoo ñoom dañuy communiqué ay ko ma sa gis lu mel nii eh, bëgg a xamal sénégalais yi suñu mbokki làppato yi ñu bari dañu am da nga dëgër sa xol bi dafa dëgër yow xam nga dafa mel do sénégalais jégg na lu ne ci yéen mais parce que dama xam ni aduna di doxé dama xam la nature humaine dama xam la la logique de la nature humaine xam aduna bi ci yeen logique lay dox xam lu bari bari lo xam ne xëy ñi may juger dima àtte ci émotion dima àtte ci yegg yegg ñom seen xol lañ yor man man sama xol bi dama ko noto noto noto noto jël sama xel tek ko ci sama bir xol nit ñu bari dañoo wara am liggéey bu ñu liggéey ci seen bop moy dañoo am ñaari yëgukaay ci seen i jëmm yi te yàlla def ko ci ñoom te ñaar yooyu dañoo am solo muy xel ak xol xel ak xol li jafe ci dundu doomu aadama yëpp ñu ngi ci diggante ñaari mbir yi xel akum xol ñi gën a jekku àdduna ñi ko gën a jekku ñi gën a xam àdduna mooy ñi nga xam ne dañoo jël seenum xel xel mi ci bopp bi dëxañ ko ci seen biir xol napp tëj seen xol jël seen xel tëj ko muy caabi gi doom bi ñi gën a sonn ci àdduna ñi gën a dégg di àdduna ñi gën a nekk ci àdduna bi nekk ay làppato moo ñu yaakaar ne àdduna bi ci xol lañ koy defaree lépp xol a ko yore jël seen kaw xel ñooñu ay làppato la ñuy doon daa iman Oui, les êtres émotifs dont parlait Senghor Senghor on la étudié avec donc les hommes qui l'ont inspiré comme euh, Taillard de Chardin Taillard de Chardin un grand philosophe de, l'église française en Avergnan. rien. il a beaucoup inspiré Senghor un homme de culture d'une dimension exceptionnelle un homme d'église un homme aussi de, philosophie qui a beaucoup inspiré Senghor Taillard de Chardin alors pourquoi c'est intéressant c'est un homme de foi donc de cœur Taillard de Chardin mais à la fois un homme de raison homme de foi bobu xol bi ak homme de raison xel mi mo dem ba mom tayar de Chardin mu jël xelam xelam mëddee ko xolam ndax bu ñëk da nga wuyu ci xol yàlla yàlla yàlla yàlla xol xol xol mu dem ba gis ne nit ñi bo leen ni bëgg àtte ak leen jàpp ci yàlla yàlla xol xol ci yëg-yëg ci pass pass man nga baña comprendre da ngay nekk ci ginnaaw mu def ay gëssu yu bari bari bari bari fexe ba en tant que nitu église catholique église mu fexe ba tabax tabax xelam ba xel ni ñëw mëdd xol mi parce que xel ni xol mom day yëk xol day yëk xel day yëk waye xol xol xol day yëk xol day yëk waaye xel day ràññetle day gis xol day yëg waaye xel day ràññetle di gis ñun africains yi loolu moo tax duñu gaaw a dem parce que ay nit lañ yoo xam ne suñu yëg-yëg moo ëpp doole suñu ràññetle ak ñu gëstu ñu xam suñuy xel yi dañ ko wóolu di wóolu wuñu suñu xel yi suñu xol yi la ñu gën a fonk suñu xel yi xol yi ci dënd bi moom la ñu gën a fonk xel mi ci bopp bi loolu moo tax duñu gaaw a dem foo ñu fekk ñaga ginnaaw dañuy nekk ay doomi moo tax may wax bés bu nekk di sonn ci li may def pour bëgg ngeen inverser cette logique fexe ba jël seen xel yi mu tiim seen xol yi ndax mbind bi ñu yàlla bind sax bind bi ñu yàlla bind <clears throat> bu ñu xoolee suñu anatomie suñu xoolee suñu melokaanu yaram xool ni ñu yàlla bindee ni ñu taxawee da ngay gis ne lu la gën a féete kaw ci jëmmi doomu aadama moo la ëpp importance lu gën a kawee ci doomu aadama rek moo ëpp importance ci dund doomu aadama doomu aadama bopp mooy li ci ëpp solo moo tax yàlla yëkkati ko mu nekk ca kaw waaye bopp boobu li muy am solo yëpp dara weewu ko du xel mi nekk ci bopp bi est-ce que yéen a ngi may déglu anatomie lay def ak yéen xel mi nekk ci bopp bi moo tax bopp am solo li tax xel mi nekk ci biir bopp bi bopp bi am solo mooy xel mi mooy moteur bi xel mi moo yor lépp jëmmi doomi aadama yi xol beeg yëpp xel mi moo ko war a yilif kon li ngeen war a jàng mooy li ngeen yilif yéen du nekkul ab sëriñ leen war a yilif du Macky Sall mo len wara yilif du man mi maa len wara yilif du Poutine mo len wara yilif du Biden mo len wara yilif kenn waru leen a yilif kenn ku ci nek yaay sa kilifa bop waaye lan moy sa kilifa ci sa jëmm ji dafa am lu la wara yilif te lolu moy sa xel nit xel moy moy kilifa am xelam doko jox serigne doko jox politicien doko jox président doko jox kenn ndax lolu moy sa dole moy sa captain lama waji newon sama xel mi moy sama captain mom lay ngegena yo sa su ne du ko bàyyi fenn fuma dem dama koy yobale te bala ma dem fenn mom lay yabal mom xel bala ma dem fenn dama koy yabal mom xel te fama jëm mu jitu ma fa dem xol place ba bari bama jëm num mel yep mu dem dikk indil ma ko ne ma nii ak nii la ma doog a xalaat naka laa fay demee ba dem ci ci jàmm ñëw loolu xel képp moo ko mën xol mënu est-ce que fi ngeen toog di ma déglu yéen seenum xol xol bi ki dënd bi yëpp seen xel moo maa xalaat ci lu ne ngeen maa imaginer ci lu ne waaye loolu du xol moo koy def bu xel ma noppee nag xol soog a jël waaye yéen inverse bi ngeen def seen xol yi ngeen di jéem a yabal fàtte seenum xel loolu moo tax ñu nekk ginnaaw <coughs> jël leen seen xel yi ci bopp bopp ni mu féetee kaw ci jëmmi doomu aadama yi noon la féetee kaw lépp moom bopp te bopp amul njëriñ ay yax rek fi nekk njëriñu bopp li tax ñu li tax ñu def ko yax bopp bopp yax kepp la bopp amul suux bopp yax kepp la lu tax parce que dafa am secret sirru bi yàlla def ci doomu aadama muy xel mi da koo def ci biir bopp bi ba noppi daal di koy blender jël ay yax yu dëgër daal di koy mëdd blender ko mëdd ko ba nga xam ne bopp boobu tey ji bala ngaa àgg ci xel mi ndax xel mi yuur gi bu ñu koy lépp yàqu yuur gi bu ñu koy laal moo tax yàlla blende comme daal ak yax yu dëgër yoo xam ne bokkul ak benn ci suñu yax da ko mëdd mëddaat ko ba nga xam ne bala ngaa àgg ci yóor bi da wax lu lu sérieux loolu dafa loolu secret la loolu yéen war ngeen ko lu nga teg daj ñun ñëpp suñu bopp yi yàq la lu tax dafa am lu ñu dëxam ci biir bopp bi loo xam ne ko war mooy am xel loolu nag la tubaab jël di ko utiliser tubaab tuba bi Macron ak Poutine nag bàyyi dana yëpp ba ba mu des nag Sénégal dëkk làppata yi foofu moom yeg yëg su koy ay way sëñ bi ay ay batin du ay kepp fuddoo ko daano ko gel ko yu kenn xamul asaka ki pa asaka asafur la euh, mu tuddati addiyaa ki màggale ki gàmme ko kasu radio bi ci yoy rek ngeen ne yooyu rek yoy nga xamna ne at mu ci ngeen nek di enquête dogu dox waye nak na ngeen def ba jël gone yi jàngal leen yëkkati seen xel jangal leen former leen préparer leen ba ñu nekk ay patriote nga xam tay tey Sénégal tey li xew Ukraine tay bu xewon Sénégal Sénégal gi yëppay daw dafa am ñu ma envoyé ay vidéo les sénégalais yi nekk Ukraine ña nga yuuxu di jooy kenn dimbaliwu leen Macky Sall dimbaliwu leen kenn dimbaliwu leen dañu bëgg gën dëkk ba man leen wax nañu dëgg loolu dëgg la dañu wara war a jàppale assisté leen ndax it loolu mooy li jaadu boo yooyu am réew njaboote nit ñi bu nit ñi nekkee ci àll musibaam fa da ngay fexe ba jàppale leen ba ñu mën a mucc man loolu moom ànd ci ñoom waaye tamit dama ci am beneen jàngat na gannaaw ba ma ci àndee ñoom ci loolu mooy ab question la naka ngay nekkee ci am réew moo xam da nga fay jàng moo xam da nga fay liggéey moo xam lu la ko mën di def waaye yaa fa daal di fa dund jàmm di am nga nekk fa musiba xëy am fa nga takk say bagage na yaa ngi daw loolu est ce que as gor war nga ko def est ce que patriote war naa def loolu muy ab laaj bu ma leen laaj Nek ci ab rew di fa am sa teranga di fa dundu yor fa sa bop yor fa sa njabot yor fa sax ñoo bayyi senegal am fa jamm di dama ko ñew kenn bundu xatalu fa ya bayyi sa rew dem rew momé kon rew momé am lo fa mëna am lo mënta am ci sa rew ma nga bayyi deug la nga nek fa nek fa ba benn bis ma am jafé jafé ci walu guerre ci walu rayante rew ma soxla ku leen jappalé bañ mëna mom seen bop ngay leen déedéet dem na sama yoon man rayante leen sama yoon nekku ci bu ngeen xeexee ba nopi bu jamm gi dellu ci waté ma ñewat waye bu takké ma dem loolu est ce que as gor dana ko def est ce que patriote war na def loolu muy laaj laaj ñepp nak fu ci way nek ci aduna bi yor fa sa teranga am fa lo xamne ne ko am ci sa rew ba nga bay rew mo me nga nek bis bu takke wala musiba am fa lay yefi gor moy nga and ak ñom ci waa rew ma jappale leen xex ci rew ma ba jamm na delu ci ndax ba jamm amé da nga fa nekkon difa am teranga ñun nag sénégalais yi dañuy wër rek comme ay ñun njëriñ donc dañuy fekk ku liggéey ku xal ku xex ku guerre ba taxawal développement ñu ñoo ñëw tepp ci biir nak di jëriñu bu guerre amé ñu daw bu guerre ba noppé ba ñuy defaraat ba séddi la koppar ya kaayis ba liggéey ba nga ñëw na sama wal bu guerre amé nga daw bu njëriñ amé nga ñëw li moy esprit lapato sénégalais est ce que li deug la est-ce que dëgg la dama leen laaj est-ce que af gor war naa nekk Amérique Japon Chine nigeria Mali foo man Mali gi foo mënta nekk ñi Sénégal yi nekk Mali dañoo war a ànd ak peuple malien bi bu ko laajee ñu jël ay sox ànd ak ñoom xeex noonu yi nekk biir Mali pour mu jóge fa parce que Mali la ñuy dund foofu la ñu am teranga ba mën a yor seen bopp yor seen njaboot lan moo tax nga mën a nekk ci réewum jàmbur di fa tedd am fa loo xam ne mënoo koo am ci sa réew te réew moom nga nekk bis bu tàkkee nga takk sa bagage daw foo jëm loolu c'est une lâcheté moi j'ai du patriotisme dans mon sang moi je suis un patriote fépp fu may dund am fa teranga nekk fa ak sama njaboot buy tàkk du ma dama damay jël ay sox ànd ak ñoom xeex ba jàmm dellu waaye bu ma jëlee samay bagage génn dëkk ba ñibbi fa ma dëkk bu jàmm amaatee du ma la sénégalais yi li ñu bëgg dafa yomb sénégalais yi li ñu bëgg dafa yomb sénégalais yi duñu xeex sénégalais yi amuñu xam-xam sénégalais yi duñu tabax dara dañuy wër àdduna bi fekk fu ñu dem gis fa lu baax lu fa nekk ñu fexe ba góoxante jël fa seen wàll duñ la amal njariñ ci dara lu ñu am yóbbu senegal ba nopi nak japp ci dëkk ba nga xam ne fa lañ nekk di am seen teranga di ko yàq lu ne bu dëkk ba tàkkee ñuy buuxante ci saxaar gi ne génne leen ñu en priorité pourquoi du leen génne en priorité pourquoi fa ngeen jëm fa ngeen jëm fa ngeen jëm bu réew bu réew mi neexee ma ñu ne yéen ko bokk ku nekk jariñu bu tàkkee yéen daal yéen lañ koy bàyyi yéen ukrainien yéen yéen bu réew mi tàkkee acca yéen yéen ay xeex ñun ñun dëkkuñu fi ay doxandéem lañ dem nañ suñu yoon bu gën xeexee ba ñu bari dee nag ba jàmm dellu si waat nag ñu takkaat suñu bagage ñëwaat ay waa yéen daw samba man loolu ku ma ko def tey Sénégal su ma fa nekkoon tey Sénégal tàkk étranger yi nekk Sénégal yëpp ne dañuy génn Sénégal dama leen bàyyi ñu génn de mais bu réew mi amatee jàmm ñoom kenn dootu fa duggati nit ki da ngay moom ci neex nga ànd moom ci mu naqari da ngay fekk ku defar ba noppi rek dara def mënoo dara defoo dara loolu war nañ ko rus bàyyi ko ni ma koy waxee man ànduma Ukraine de Poutine laa àndal Ukraine dañoo war ko parce que bu ma nekkoon tey Sénégal ñu attaqué ko tey daw dee Sénégal bu fa guerre amoon tey xamu fu ñu wax naa ko benn waaye ma ne ko tey bu fa xeex amoon kenn du xeex mu jàmm gën a lu lu fi am amu fi fi am am ñu jóg ne bëgg dem ci jàmm loolu bëgg-bëgg la mais amagu fi reyante fi am de àdduna reyante la ba ko ko jàngalul xamoo àdduna ba tax foo leen fekk ñu ngi waajal seen bopp di formé wu ñu demuñu kaso rajab li bi xeex la Kerla. wax gi du neex waxi waxi gor lain leen wax Wah waxi patriote laa leen wax waxi gor Lo patriot lo apa pas pur de la mort il faut être prêt à mourir ba nga taxawee patriot nga le don de soi ba ko nga pare pour dee te lan mooy tax ngay dee bul dee ci maali fole bul dee ci sàcc bul dee ci fen bul dee ci lu ban da ngay dee ci lo xam la nga pare tek ci sa bakkan mu jàll wala nga jàll kooku ban sénégal sénégal ay làppato lañ ña ngay buuxante ñu leen dama ko dama waa bëgg nga wax ci live bi parce que ñun daal ko ma leen waxal dara fu ngeen Ah, dañoo bëgg ñu génn ñu dañoo bëgg dugg Pologne dañoo raciste parce que tubaab yi dañuy génn ñu may leen leen ngeen jëli ay fetal dem xeex ak ànd ñoom ci dëkk ba ngeen nekkoon dina paale seen i am fa di lekk lekk bu neexee ganaar lu ngeen fa def bëgg leen génn toog leen Sénégal dëkk tubaab yi ku fi nekk yéen ñëpp lay waxal nag ku nekk ci dëkk tubaab yi na dem jàngi fetal jàngi soxta xam ne bis dana ñëw mën ngaa xeex bés bu ne tubaab dañuy nekk ñu fi naan sëñ bi ñaan naat def léegi di woo fi tudd ak toppatoo wuñu yooyu saa ñu xëyee ñu i paaka di defal seen i fetal yu sophistiqué taxaw di xaar ndax xam nañ ne bés bu nekk xeex mën naa tàbbi yéen ñu nekk ci dëkk tubaab bi dem leen jàngi fetal jàngi sox jàngi xeex laa leen wax àdduna bi xeex a fi nekk ba keroog ñi mën am jàmm jàmm moom ñun ñëpp moom lañu bëgg kenn bëggul fitna kenn bëggul xeex waaye bëgg jàmm tekkiwul ak fitna bi nekk ci li fi am ak li nga li nga bëgg ak li am li am mooy rayante lekkante xeex looloo fi am loolu mooy nature humaine ba yàlla wàccee adduna bi nit ki adduna ba léegi fi am rayante firange xëccoo rayante kóopa samalam duma nootan nootante diine ji sax dañ ko noot diine ji moo wàcce yonent bi moom yàlla ji boppam nga xam ne moom ak mu amee kàttan moom yàlla diineem ji sax pour mu taxaw nit ñi dañoo dee te loolu moo na ko ci bañ a fekk waaye yeen nag xam leen loolu mooy wax dafa bari fitna dafa bëgg a taal réew mi ma nga ci àll ba bëgg Sénégal tàkk tërë parce que dama leen di préparer dama dama leen di waajal ci li am ci aduna ngeen xam ko ngeen duppal ni seen xel yi parce que niñ leen yaree baaxul li mag ni liñ leen jangal baaxul mag ni jangalu leen aduna mag ni dañ leen jangal jàngal benn gént lañ leen jox yar leen ci ab li ngeen li ngeen yaro liñ leen jangal gënt la du dëgg aduna bi na ngeen bëggante na ngeen kiyante jamm loolu waxi mag ni la loolu bëgg-bëgg mag ni la waaye bokkul ak dëgg dëgg mooy jàngi leen xeex jàngi leen sox outil leen doole na ngeen entraîné wu service militaire na ñëpp dugg ci armée bi Sénégal gépp waroon na mën a xam ni ñu teqee am seex tënk am sox tënk sox mooy lan tiiree fetal 99 pour cent sénégalais yi mosuñoo gis fetal xamuñu nu ñuy tiiree fetal te loolu moom sénégal yëpp ko waroon nu ñuy dóoree fetal nu ñuy tënk am fetal ko wax mu ne sénégalais la di ko mën na cay xeex waaye parewul pour dee pour xeex ngir réewam ukrainien yi ña koy xeex français yi ñëpp xeex japonais yi ñëppay taxaw di xeex ba mu des sénégalais yi ay làppato lañ du xeex mukk guinéen yi sax ñoom pare nañ pour xeex ak malien ba mu des ñun lu tax xeex man xeex am fetal di tooñ de waxuma loolu je je suis dans une dynamique préventive dama maanaam damay leen woo ci jàng xeex mën a téq fetal mën a reyante ngir waajal sa bopp ëllëg ba kenn du la noot loolu boko xamé ba noppi ba man ko nak do ko jël nak jëfëndiko ko di ci noot nit ak di ci tooñ waxuma ngi togn de waxuma ngi dal ci ko kenn waxuma nañu xex ak kenn waye nak ah nañu fagaru de nañu jangi xex jangi yëkëti botti do ci suuf jangi bëss ci bouton missile yi naaw jangi jël ay sous-marin def ci biir de nga maam géej ñuy naan jeexeet di torpiller en eau profonde muy daw missile yi eh, missile yi putin yore missile yi yi Poutine yore bu bëssé ci bouton bi missile bu déparé russi juroomi juroomi minute juroomi minute lay déparé russi ak ci France juroomi minute est-ce que yéen déglu ma de déglu ma de vitesse de croisière missiles missile Poutine minutes lay cinq minutes minutes c'est des missiles daw à la vitesse presque de la lumière ci dara ndax sous yi les navires militaires yi yi comme am ay douche am cuisine am salle d'attente am salle de sport am ay ci nucléaire yi mu bâtiment de guerre naval nest ci bir comme sa oxygène ngay nooyi di lekk di sport di sëy sa jabar ci biir di def lépp nekk militaire nekk ci biir sous yi yor pot nucléaire yi nga xam ne buñ la ko joxee boo bësee ci mouton bi ci biir géej gi fa bomb yi jógee bëtt géej gi génn fëll ñëw Sénégal ne tëll gi seen kaw wala France wala fu manti dool kookee mu lépp baatin kooku maanaam julliwu ci géej gi mais li mu def ci géej gi moo raw julli ci géej ndax julli ci géej gi bu fekkee ñoom ñu jël ay machine de yoo xam ne mat na ay 200 tonnes 300 tonnes 400 tonnes ñu jigee ko ci biir géej muy daw ci géej guddi ak bëccëg te kenn du ko gis di romb jën yi ay nit nekk ci biir di ci dund ñu yor fa ay sox yoo xam ne bu ñu bësee ci bouton bi sox bi bu génnee vitesse bi muy daw mooy missile bi en 5 minutes mën na daw 5000 kilomètres 5 minutes waaye yéen kii kii kii ñii ñoo ñu gën maam waaye ñii seen maam yee man suñu maam ko en def nañ lu concret ko ji bàyyi nañ fa loolu nag la Vladimir Poutine yak benn nit moo taxaw défier àdduna bi yëpp kenn yënguwul loolu waaye doolee wóor waay nit nit nit nekk góor wala nga nekk jigéen mais mënoo nekk góor jigéen moo tax Vladimir Poutine bañ ko nee góor jigéen mu ne ku fi ñëw ma la man bëgguma góor jigéen man Vladimir Poutine góor bu fi góor jigéen duggee dama leen rendi ñu ne ko xam ah, ne waaw na fii góor fii am wala jigéen ñu ne kenn du ko wax fii la ñuy boyalee xel yi fii man maa koy wax man xel yi laa bëgg mu boy seen xel yi laa bëgg ngeen yëkkati ko mu tiim seen lépp comme ni ko yàlla yëkkatee mu nekk seen bopp tiim seen jëmm jëpp da ngeen bàyyi seen xol yi yëg-yëg yi ngeen teg ko fële day raisonné li may wax est-ce na bu leerul ngeen wax ma ma baamtuwaat dama bëgg xel yi tàkk xel yi boy ndax xel yu boy yooyu ñooy dawal missile yooyu di daw plus de 5000 kilomètres ci 5 minutes xel yu boy yooyu ñoo tabax Russie ba Vladimir Poutine jóg tey taxaw défier àdduna bi yëpp ba ñoom ñëpp ñu ngay jëfru FIFA dàq nañu Russie Union européenne crève euh, nee na benn avion russe dootul romb seen kii code SWIFT bi dañ ko ciy din déconnecté yéen a ngi dégg put put mais yëngalu ko yaramam dina def sànq ci kanam dina def waxtaan déglu leen ko Poutine lan moo ko yàlla moo ko may dëgër loolu li leen gën a gën yàlla de mu leen gën a xam yàlla gën leen a gëm benn ñaareel bi waaye ba mu gëmee yàlla ba noppi nag toogul naan yàlla may ma lii ay waay yàlla tàllal sa ko jooy di kasu rajaba ki màggale ki gàmmoo ki seen yooyu ngeen nekk yooyu ngeen ajulum ngooñ yàlla yàlla kese légat bu deful dara la lu bay da nga cay nekk yàlla soog a ñëw loolu la puccul xam moo tax mu ne waaye toog yow sa caay ju ënn yow say jeeg di jur doomi teg yow sa kurus gu bu ñu imaam yi nga ne sama wàll lu ñu saraxe ci mbedd mi nga laaj ci sa wàll kër gi fees delle ki nit ak juddoo ko yooyu yëpp de dara bu ñu waxee ngaan yàlla baax na jàmm lañ bëgg bu ngoonee ngeen baxal seen benn ceeb def ci ndox lekk wala ngeen sànni ci benn géej gi lekk ko te naan jàmm amu jàmm bu loolu la situation Euh, au plan local la région est aussi au niveau de ses implications au plan international parce que boobu léegi yéen a ngi dégg coow li ku nekk di wax mais bu ngeen xam ne bu ngeen gisee sanction yi ñuy jël contre la Russie amagul benn sanction bu jógee Nations Unies loolu jaaxalu leen pourquoi ONU Nations Unies bi nga xam ne foofu la mbootu xeetaay yëpp daje bokk ko lan moo tax ñoom jëlaguñu benn dogal contre la Russie lu tax est-ce que posé wu leen question boobu est-ce que laaj ngeen seen bopp lan moo tax Nations Unies uni xam nga dañuy yàkkamte ba ñu dugg Irak nga dem Nations Unies tapale seen tapale dem dóori Saddam Hussein rey ko jàpp ba ñu bëggee dugg Syrie dañoo dem Nations Unies tapale tapale dugg Syrie Vladimir Poutine fekk leen fa ak Bachar al-Assad dañoo mujj génn Syrie daw dem seen yoon ba ñu bëggee dugg Libye ñu ngi def Nicolas Sarkozy ak Obama mi ngeen naan Obama Obama mu Obama Obama moo yées yu yàlla bind Obama moo tax su ma gisee mais comme ay lapato comme ku ñuul la rek ah Obama waay le premier président noir américain ma leen kii lapato la kii kii du def dara loxo beeg càmmoñ beeg Obama doo xam gauche doo xam droite la muy lëcc lëcc Obama yéesul yàlla bind xool la def ànd ak Sarkozy yeeg ñoom ñëpp ñu seen complot dal ci kaw Xaddaafi rey Poutine di leen piège rek di leen ñu def rek Poutine lu ñu def rek di ci de waaye comme ñoom bu ñu voté conseil sécurité mu leen je suis contre ñu lem loxoom dem dajji Libye malgré l'opposition de Poutine ak la Chine dajji bëgg a dajji mu yóbbu fa aar Bachar al-Assad dajji Irak mu bëgg ko dajji Poutine leen du ki dal ñu dugg Mali bëgg ko dajji mu leen du ki dal jamono boobu yëpp ni ngi wax ak ñoom ne leen attention yéen a ngi jéem a avancé l'OTAN le traité atlantique yéen a ngi jéem a avancé muy l'organisation militaire bi ñu créé après la seconde guerre mondiale maa ngi koy wax keroog boo xam ne États-Unis moo ci nekk Grande-Bretagne et l'ensemble des pays de l'Union européenne ñoo nekk au niveau de l'OTAN au lieu que ñu yem suñu yem ñu ñoqali nan dañuy def élargissement de l'Union européenne donc Union européenne ñu ngi ko créé après la seconde guerre mondiale wax naa ko keroog mais bi ñu ko créé américain bi ko def un cheval de Troie américain yi dafa jël Union européenne daf ko xeexukaay contre l'idéologie communiste mooy lan les pays communistes les pays de l'URSS il faut que nous des il faut que ñu dajji leen tas leen néewal leen il faut qu'on bari dugal ci l'Union européenne L'Amérique Amérique moo nekk ci parce que les États-Unis ñoom mënuñu digérer le communisme le communisme pour nous, c'est satanique pour nous donc ñu am benn de bras, branche sécurité muy le temps ñu dugal ci Union européenne yëpp dooleel leen parce que Union européenne amuñu défense amuñu armement amuñu une politique euh, extérieure euh, et sécuritaire commune la PESC ils ont échoué au niveau de l'Union européenne mais donc la politique extérieure pour la sécurité commune de l'Union européenne, la PESC. Ils ont créé Ils ont créé la CED, la Communauté européenne de défense, Ils ont créé la PESC, Ils ont créé Frontex, ok. Et voilà. Mais, Bolivie, nous avons un problème réel, donc, dans le leadership unifié du point de vue militaire, pour pouvoir quand même défendre leurs intérêts. Les, ce sont les Américains qui garantissent leur sécurité et leurs intérêts militaires à travers le temps autant plus l'Union européenne d'élargir les pays de l'Est européenne plus autant tamit grignoter parce que maintenant c'est autant qui est le bras militaire de l'Union européenne c'est autant qui est le garant de l'Union européenne donc l'Union européenne parce que en 1989 après la chute du mur de Berlin en le discours de euh, la après euh, Boris Yeltsin a a j'ai un grand projet

musibaam deuxième guerre mondiale woon ñun Russie musibaam saa su àdduna bi naree jeng dem ci seytaane yi am lu mu naree këf ñun Russie ñun ñooy jojeen mission boobu yàlla moo ñu ko dénk dañ ci war a taxaw wala ñu wax loolu de moo tax tey mu taxawaat ne OTAN bi seytaane la satanique la ñi ci nekk mooy les ascasars les mooy les faux juifs les juifs de l'Europe de l'Ouest la nga xam ne ñoom dañu tuub dugg ci judaïsme par tricherie waxoon naa ko rek avec leur, leur, leur, leur leur leur dieu donc, euh, qu'ils ont développé autour du culte de Baal, avec ce qu'on appelle donc, euh, euh leur religion canane Ils ont une religion qu'on appelle le Canaan. C'est une religion bobu, c'est une religion de sacrifice euh, humaine. Il y a des gens qui ont bébé qui ont pour ses dieux. Bobu, le Baal. Baal, bobu, c'est pas le hasard que nous avons. Ils ont dû se parce que nous avons togn, nous avons togn, au niveau donc de l'Eurasie donc dans donc autour de la mer Caspienne dëkk bi ñuy wax as comment comment dirais le le l'Azerbaïdjan euh, le Afghanistan euh, Turkménistan euh, le Kazakhstan surtout le Kazakhstan la Crimée actuelle fii ñuy xeexee nii tey jii fii bi am et l'Ukraine fii xeex bi am ni c'était le pays des Khazars fii xeex bi am ni ñoom foofu moo nekkoon seen cosaan Khazars yooyu nag ñooy les faux juifs qui se sont convertis waxoon naa ko ci live bi parce que du ma parce qu'il faut avancer aussi vous comprendre que nous nekkul et ay de puissance nous sax un enjeu de jeu économique ce sont des enjeux de valeur le choc des civilisations de Huntington les guerres de demain seront des guerres de culture qui dit culture dit religion qui dit religion dit valeur est-ce que y Je vous convie de lire Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Et ça, c'est les guerres de futur. Quand il le disait il y a cela 15 ans, 20 ans, les guerres de demain seront des guerres de culture, des guerres de religion. Donc la guerre là qu'il y a au niveau de Crimée aujourd'hui, au niveau de l'Ukraine, entre Poutine et l'Ukraine, c'est une guerre de religion. On ne le dit pas, mais c'est ça la vérité. Quand on parle de religion, c'est une guerre de, foi, de croyance. Guerre là, passe-passe, la guerre passe-passe. Entre nous, les catholiques orthodoxes russes, toute l'église catholique orthodoxe russe est derrière lui. Pourquoi les Tchétchènes, la Tchétchénie, c'est un pays, ce sont des musulmans. Nous sommes Vladimir Poutine l'Ukraine. Pourquoi Parce que c'est une guerre de religion. C'est ça la vérité. Nous devons mais c'est la vérité. Religion, il y a religion. Religion, c'est Dieu. Moi, catholique, yahudi, islam, et musulman. Moi, les trois livres. La Torah, euh, euh, le Coran et euh, la Bible. Nous avons religion, moi, les religions révélées. Nous avons religion. Nous avons tous les religions. Nous avons les musulmans. Nous avons les Russes. ñi nga xamne ñoom dañu am seen religion muy la religion kanan muy cette religion satanique bi nga xamne seen yalla ji bàll tuddu yalla jooju likoy dundal ñu pour ñoom moy bébé xalé bu ndaw lire nga sànni ko ci safara lak sacrifice ko sacc alu nit ray nit tout deret mom nañu keuf ñoom mu ñek def maçon des francs maçons yu bon dugal fétiche ci seen mbir ñoom ñoo ñe ñoom ñoo taxawal tay ji jur ay ñoom Rockefeller ñoom ñoy mamu ay ñoom Rothschild ñoy mamu ñepp ñoo xamne tay ji ñu ngi ci cabal bi contre Vladimir Poutine lolu motax c'est une guerre de valeur il faut ngeen dégg ko xamee fofu guerre bi guerre valeur lu bax la am lu bon lu yàlla bëgg ak li ak li yàlla bañ lolu moy xex bi motax tax Poutine daf ci am ndam au niveau de l'ONU la Russie est membre pourquoi il fa a parce que parce que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU vous opposez au bout de veto décision du sans compter la Chine qui a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU Golden Deal of Eurasia Poutine est membre mais bien sûr Koutoune est membre il est membre il est membre mais qu'est-ce que cela veut dire d'être membre de Golden Deer of, Asia, of Eurasia Ça veut rien dire. Il faut que au sein de ces, de ces, de ces, de ces groupes-là, qui sont des groupes maçonniques, il faut que au sein de ces groupes-là, les loges maçonniques ont ce qu'on appelle aussi les supraloges. Ils ont team les loges. ñoom ci seen biir sax jéggoowuñu ci seen de dafa am ay courant te monde la des a demee qui ci sen biir Poutine est pour le nouvel ordre mondial il n'est pas contre le nouvel ordre mondial mais il est contre le nouvel ordre mondial nouvel satanique mondial. am est contre le bëgg a un bi contre le nouvel ordre mondial bi Macky Sall di nouvel ak Macron ci Biden Poutine d'accord le nouvel ordre mondial même les chinois sont dedans les loges maçonniques les arabes, Saoudite ñi ngi ci biir Sénégal ñi ngi ci musulmans yi bari ñi ngi moi j'ai le livre où il y a pas mal de pays musulmans même les Iraniens ñi dans les loges maçonniques Mais pour comprendre lu leen c'est quoi les loges maçonniques les Sénégalais ont un regard limité de ce qui est franc-maçonnerie et les loges il faut comprendre cela les choses sont beaucoup plus complexes que ça il y a des musulmans des imams qui sont dans les loges maçonniques ce sont des lieux ou des rapports de force s'exercent par entre le mal et le bien am ñu nekk ci biir franc-maçon ay julit xàqan nañ ñu ci franc-maçon ay juif xàqan nañ ñu nekk ci biir franc-maçon ay catholique xàqan c'est ce que vous n'avez pas compris vous parce que les choses sont

mais il y a franc-maçon et francs-maçons, il y a des bons francs-maçons, il y a des mauvais francs-maçons. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il faut que nous étudier dugg ci biir ba comprendre. Heureusement d'ailleurs que ba ñoom jubawuñu. yow yaa ne pour Poutine ñu ngi ci benn loge maçonnique. effectivement c'est vrai léegi naka la mën a nekkee ci biir loge ba noppi di xëccoo c'est une question da ngeen war a poser une question naka la Poutine mën a bokkee ak ñoom loge d'accord ak ñoom voilà la question Erdogan bi ngeen tàcc bés bu nekk au nom des musulmans Erdogan Erdogan est dans les loges dans les supraloges maçonniques Erdogan bu Turquie le roi d'Arabie Saoudite ñu ngi ci biir loge yi man waxantuma li ma leen wax ñoom ñëpp mais taxul ma jàpp ne ay nit ñu bon nañu la ko rek xëy na ñu ngi ci biir mais dañuy xeex ñoom déggoowuñu il faut que ngeen décortiquer ngeen am une analyse fine des choses ne pas agir wala ngeen di gaawantu di juger di atte qui pas-pas ki ak yëg-yëg da ngeen analyser te nit ki lu mu xamul wala ci wax bala ngeen juger des francs-maçons dans leur globalité non il y a différents types de francs-maçons il y a différentes loges ñoom ci seen biir sax déggoowuñu ni yéen da ngeen mi ngi mën fi yëngal musulman yi mais tey mënoo atté musulman yëpp ñi ay mourid lañu ñi ay xadir lañu ñi ay laayit lañu ci bi mourid gi am na ñoo xam ay baay fall lañu ci bi tijaan gi am na ñoo xam ne am na ñoo xam te pourtant ñëpp ay musulman lañu légui nga xam nga mën rek né musulman yëpp dañoo bon am na loo xam du xel il faut être intelligent

ba mu ko faire dañu fexe ba foliko ko ba yëgati ko bu su ko fekkon imaginez-vous tey Donald Trump nekkoon président des États-Unis aujourd'hui dans ce contexte là ngeen yaakaar a une décision lay jël il serait du côté de la Russie parce que Donald Trump wax nañu c'est quoi la cabale wax nañu les sataniques la wax nañu ñom ñëpp les Rockefeller les Rockefeller les Rothschild tous ces sataniques là nga xamna ñom ñom banque mondiale ñom FMI ñom même la réserve fédérale américaine ñom le dollar ñom même le dollar n'appartient pas aux américains est-ce que xam le dollar n'est pas une monnaie américaine c'est une monnaie privée qui appartient à ce le ce lobby là euh, satanique là les les les les là les faux juifs là est-ce que xam lolu il faut ñu dem gëstu gi di wax ci xam-xam non, je connais des frères maçons, des musulmans, des Sénégalais. Je connais. Mais il me faut encore pousser pour comprendre. Ils sont du bon côté ou du mauvais côté. Dans le catholicisme, il y a des bons catholiques, il y a des mauvais catholiques. Dans le judaïsme, il y a des juifs, mais orthodoxes, des juifs purs. Il y a le brial, le bon. Mais il y a des juifs musulmans. Dans l'islam, il y a des faux musulmans qui ont yes. Atay ñi gens qui ont des « ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ci biir jullit ñi Non, la amee ci biir yahudi noonu la amee ci biir juif non, la amee ci biir franc-maçonnerie bi la amee ci daayira yi ngeen yore fonk na fi ñu naafeq ñu nekk ñu bon ñoo xam ne bu ngeen duggee daayira jigéen ñi la ñuy xool fu xam ne amuñu ci xam-xam nit dafay gëstu bu tamit mën na gëstu ba xam bu xamee wax ci li mu xam bu xamul noppi te bañ di atte ak te li muy jugé xamu ko Amadou Hampâté Bâ yéen ñëpp xam ngeen ko Amadou Hampâté xam ngeen ko Amadou Hampâté Bâ c'est un jox exemple Amadou Hampâté Bâ c'est un franc-maçon <laughs> ta pourtant ñëpp a ko yëkkati macha allah macha allah Nelson de la un franc-maçon Kadhafi bi ngeen di wax c'est un franc-maçon mën naa si ay nit ñu ay buur ay président ay ay ay kilifa diine Iran ku nekk xam na taxawaayu Iran ci wàllu islam ci wàllu bañ ci bëri mais Iran mais la moitié de l'élite iranienne sont dans les loges maçonniques foofu la ñuy décider mbir yi foofu la ñuy orienter monde bi il faut que ñu bokk fa dugg fa di poser sur la balance d'accord ñu àdduna bi wut dem fi àdduna wotu dem fee góor jigéen d'accord ñu ci ñi ne góor jigéen ñom ñu ne dedet d'accord ñu ci góor jigéen lolu motax xex di am tay Ukraine putin taxaw na d'accord ma mais putin man nako def yalla parce que amna doole bi waajal na boppam bam doole mais ñun làpp tay amuñu doole mais oui lay wax ni wala xam nga ko waaw bëgguma tudd tur su may tudd live bi yaq amna am yo tur yoo xam ne su ma ko waxoon fii léegi yéen ñëpp tey du ngeen reer motax def leen ndànk ci li ngeen juger jugé ngeen xam li ngeen question yi ngeen di wu lan la être musulman ça veut rien dire être catholique ça veut rien dire être franc-maçon ça xool ci àdduna sax la moo am solo lépp loo nekk la am mooy jëf ji mooy la ngay finalité bi parce que naan man jullit laa te doo julli doo woo doo joxe asaka fu la yaa ngi mandé def lu bon kooku amul njëriñ naan man juif laa te doo def dara amul njëriñ ko mooy loolu moo tax tur yi amul njëriñ être franc-maçon aussi te yow

jógee ci njëlbeen bi ci bi baax la ña sos ba koy sos yéene bi ñu amoon muy àndandoo di seen daayira kenn bañ leen a paale ndax am nañu métier ñooy tabax te kenn leen fay buur yi fi ñooy tabax kër ñooy tabax château ñooy tabax lépp ba noppi leen fay ñu nekk ay jaam ñu nañu fipp créé ànd mbooloo moo doole ñu seen daayira bu ñu tuddee franc foofu la jógee des maçons tabaxkat yu franc yu dëggu ñooñee def lu bon tax leen woon jóg waaye dafay dox di dox jamono di dox jamono ba am ñu ci dugg kuréel gi am doole daayira bi am doole ñu bëggante bëggante ba am ñu ci dugg nag seytaane dugg ci lépp lu waaye taxawal seytaane dana ci dugg màkk gee ngeen jëm ci kaaba gi bu ngeen koy wër seytaane ngeen di wër seytaane ngeen di wër mi ngi mi ngi wër kaaba gi seytaane mu ngeen gën a jege kaaba gi bu ngeen bu ngeen tawaaf ci kaw seytaane ci kaw seytaane ngeen koy def amul fu yàlla bind teg fa suuf te seytaane tegu fa tànkam amul fu yàlla def lu baax te seytaane newu fa amul fu yàlla def lu baax te lu bon newu fa foo fekk lu baax lu bon nga ci wet gi il faut ngeen xam loolu au début ñoom maçon yi les francs-maçons ils étaient de bonne foi mais dafa dem rëppi loxo am ñu ngi dugg nag wëlbati ko mooy lépp muritu tey jii ak muritu sëñ Tuubaa gi xam ngeen du benn te yàlla tey yi ngeen ngi Sénégal ak yàlla Allemagne xam ngeen du benn islaamu tey jii ak islaamu yonent bi xam ngeen du benn lu ci gën a yàgg rek mu dem ba yàgg muy altéré wu am ay nit su ñuy dugg te ñoom ñëpp seytaane moo leen dugg iblis moo leen dugg dugal leen ci biir ñu bokk ci ba noppi nag détourné ko yàqu loolu liggéeyu iblis la seytaane dafa garaaw dafa bari doole yàlla ko may kattan boobu yàlla ko may doole jooju waa gi nee na ma yow man man j'ai pas besoin d'être un franc-maçon ñu bari ko ne man man du ma franc-maçon su ma ko nekkoon dama koy assumé wallahi al azim man soxlawu ma nekk franc parce que lu franc di xam-xam naa ko xam nga franc-maçon ñi nekk mooy ñu bëgg pouvoir bëgg àdduna ak kumpa man dañ naa kumpa mais li may dañ kumpa man li ma bëgg a xam soxlawu may nekk franc man li ma bëgg man ko nekk man mais gis naa la amul ma njëriñ parce que li ma bëgg a xam ci bi xam naa ko te nekkuma ci biir donc amul ma njëriñ ma di ko nekk dama leen di nekk ñu ma yow il faut nga dugg il nekk franc-maçon pourquoi parce que may wax li ngeen def yëpp xam naa ko li ngeen def xam naa ko li ngeen seen li ngeen def yëpp dama ko xam li ngeen loolu man mën naa ko mën naa ko defal sama bopp sama may bokk ci yéen da nga yeewu da li ma wax ni yëpp ci franc-maçon yéen ko xam da dafa am ay loge les schools and bonds am les illuminati yooyu ay branche yi la dafa am ñii yàlla yàlla yi ñii ay Baay Faal lañu ñii ay pourtant ñëpp ay murid lañu waaye am na yàlla yàlla am na bay Faal ak lan wax leen c'est pareil c'est pareil mais ñàkk xam ak ñàkk làppato lu ñu wax ngay jugé di wax te yow li wax amul dara ñaaw njort na koo dégg muy wax amoo xam-xam moom mi gëstu ba xam ñëw wax bu lay wax ci franc-maçonnerie koy tuumaal ne ah yow mbaa boo ko jëmale ci ko xoolal xelam mu a ne ah ma ko bu ma wax li muy wax ma bëgg man leen indil ngeen topp sama baram bi fa leen joxañ ngeen dem fa gëstul seen bopp parce que li gën a mooy li ngeen seen bopp li leen wax bu leen ko téye de leen jox ay élément pour ngeen dem defi ay gëstu parce que li gën a wóor mooy li ngeen gëstul seen bopp c'est important njàmbe daaru mu ngoog ku nekk mais ay murid lañu mais kenn ku nekk yaa ngi yow saw voilà Poutine ci ñoom la mais nak il défend des valeurs parce que c'est un catholique pur orthodoxe comme ni ma xamé ay musulmans, yu gëm yalla yu wóor yalla yu julli yu sel nek ci loge Nous comprendre les relations internationales mënoo comprendre la géopolitique la géostratégie et tous les enjeux du monde les rapports entre les États les rapports de force et de puissance les jeux de puissance et les intérêts économiques Nous ko comprendre tant que comprendre le fonctionnement de la franc-maçonnerie tant que comprendre comment fonctionnent les francs-maçons tu te perds parce que l'essence, le moteur même des rapports entre les États, les rapports de force, les jeux de puissance, les alliances, yoy, nous qui tisser dans ces loges-là. Il faut que nous donc, nous sommes un expert en relations internationales, nous sommes un expert en jeux de puissance, nous sommes un expert en stratégie de guerre, tant que nous comment fonctionnent les jeux des alliances. Et les alliances se font, se, se font au sein des loges, si ça ne suffit pas, ça se fait au, au, au sein des, ce qu'on appelle les ultra-loges. Moi, ma loge, des femmes loges, am yenen loge du gouvernement qui tem loge j'ai créé ben canal Telegram Akhenaton ci Akhenaton canal dina ko dugal après fii ngeen dem abonné ci canal bi na len dox ay documentation pour ñu bëgg lire ak ay vidéo yu bari ngeen xol parce que il faut ngeen yeew man moom but c'est fexé ba xel yi tak xel yi nga xam ne moom la franc-maçon yi jël tal seenum xel ba jëlif aduna bi am ñu naan dañu bëgg tal aduna bi indi fa ay góor jigéen indi fa lu bon jël seen jikko yu bon yoy ci bi franc-maçon gi am ñeneen ñu nekk ci bi franc-maçon ñom ñoom ñu ci loolu dañuy xëccoo ñoom seen biir déggoowuñu de te da dul siiw rek fa am ay camp waaw ngeen xam loolu loolu yéen da ko war a xam te yéen war ngeen a a xam li xew lépp te du nekk ay franc-maçon ngeen foog ne yahudi xamuñu li xew ci diine ji nit xam-xam ba yonent bi naan jàngi leen xam-xam ba ñu ba ñu koy tuddee naan na ko uti ba Chine est daf ñoo wax xam-xam bi yonent bi dafa boyal xam-xam yëpp la wax waxul benn xam-xam jàngi xam-xam la wax jéem leen a ji xam-xam te bu koy sàkku ji bu ci am limite bu tuddee Chine booba waaye la ngay jéggi ca diggaaleem ba mooy ca dig ca digle ba mooy xam-xam boo koy sàkku bul yemale sax amul app boo mënee génn àdduna bi génn àdduna laa la wax àdduna bi ndar képp nga génn ko dem ci beneen alam pour uti xam-xam loolu la yonent bi bëgg a wax jar na ko xam-xam bu mën doon xam-xam yëpp a amul xam-xam ci àdduna bu bon ndax xam-xam bu bon bi sax laa wax boo ko xamee day tax nga xam lu bon te ku xam lu bon mën koo moytu nit day yow mais déemuy làppata yoo xam ne ñaan kasu rajo ba nekk ci futilité yoo xam ne bu benn missile Vladimir Poutine rëccoon ba mooy ba dugg nag Sénégal ba daanu fa yéen ñëpp kenn wax see ngeen bu yàgg fa ngeen jëm jamono bi ngay toog di màggale ko gàmmoo ko dagale addi yéen li fi dox ci ay milliards ci cinquante ans yi waroon ngeen cee mën am ay radar am ci ay système de détection des missiles pour am ay anti teg ko Ndakaaru Sénégal

waaye toog dégg naa de ah ah mas naa toog benn sëriñ bu mag Sénégal sëriñ benn grand maanaam ñu waxtaan ah franc-maçon moom la ko ah sëriñ bi mu ne maa ma ne ko franc-maçon rek mook seen kuréel yi benn la de ay loge la rek yéen seen kuréel yi seen daayira yi seen seen mbir yi ni ngeen ko liggéeyante nii mook franc-maçon yi benn lañ de ah amul différence dajaloo nekk membre ñëw di cotiser ñi joxe addiya moom muy cotiser ngeen toog di waxtaan dajaloo seen daayira togg seen i café naan ñoom it ñu toog noonu la ngeen def de waxtaan tey li li ngeen xalaat ci lii sujet bi kër kër yooyu la ñuy tënk bu ñu ko tënkee nag dëxañ ko fu mu gën a kawe yóbbu ko Nations Unies les Nations Unies ont été une création des francs-maçons xanaa xam leen loolu les Nations Unies francs-maçons yi ñoo ko créé l'école bi ngeen gis l'école c'est un produit de la franc-maçonnerie fu xam loolu ñoom ñoo créé loolu lépp c'est dans leur pensée mais les maçons d'hier étaient des maçons qui avaient de l'éthique amoon nañu sens humaniste bëggoon nañ nit ñi xam bëggoon nañ nit ñi jàng bëggoon nañu xel yi yëkkati ko mais maçons yi léegi ñoom bëgguñu nit ñi xam ñoom dañoo bëgg nit ñi nekk ay dof dañuy yàq njàng dañuy yàq lépp pour lan parce que dañu am benn projet de gouvernance mondiale boo xam ne ñoom matuñu dara ñoom ñu yor xaalis bi yor monnaie bi yor lépp toog Poutine la xam ñoom ma ànd ak franc-maçon buy xeex bu bëgg a samp góor jigéen dañ koy xeex franc-maçon bu xeex naka la Vladimir Poutine nekkee seen biir en tant que franc-maçon ba noppi man sama dëkk góor jigéen du fa am <laughs> ah? nekk góor jigéen da lay du fi am fi góor góor gën yéen da ngeen a gën Poutine yéen donte mi ngi ci parce que c'est des c'est des loges d'influence foofu foofu àdduna bi fi mu jëm foofu lañu ko du fa dem toog du fa dem toog li nga bëgg mu toog këram yi commune ak cant ak màggal ak julli ci géej yu ba gars yi bett ko dal xel yi tàkk il faut yeewu di ñeme gëstu bàyyi dégg naa di wax di waxantu di làmbatu yooyu ngeen war bàyyi li wax li gëm ak li ngeen di dàq dafa nekk lu ngeen wëlbati lëmbat ko topp ko def ci ay enquête ba am ci lu leer parce que li wax bu ngeen xamul ci franc-maçonnerie bu leen ci gëm bu leen weddi waye li ngeen di xam go jigéen bi ñuy xex ma yéen ñëpp di ko xeex mais loolu dañoo dem ba xam lu do go góor jigéen ñun ñëpp xam nañ ko ñu taxaw diko xex xam nga loolu moom kenn kenn du leen ko laaj yéen ñun ñëpp xam nañ luy go jigéen lu concret la kooku mom magi yéen ko bokk ak Ababacar boobu ñëpp di ko parce que xam nañ lan la mais ñi ëpp yéen xam nañ la moy franc te kenn du ci wax ah maa ciy jël ay risque des fois di ci wax parce que man je m'en fous de ce que les gens pensent les gens peuvent penser ce qu'ils veulent c'est pas mon problème li ma intéressé moy man li ma xam maa ngi koy wax ñi ci bëgg a jariñ ñi ngi ci jariñ kum neex nga xalaat lu la neex mais man j'ai le courage de mes idées am na ñoo xam ne li ma xam ni xam nañ ko mais ñu ko wax parce que dañuy bañ ko leen tuuma naka ngay jàngee ba am xam-xam ci yenn yi xam-xam boo xam ne ñu bari dañ nga war a yow indi li xam teg ko ci ko taabal yi comme na yoon sallallahu alayhi wasallam ne woon dem leen jàngi xam a doon sori sàkku xam-xam mën na laa ne ko xam xam-xam yëpp xam waaye xam mhm. xam defar bomb ak am solo laaj ko Poutine mhm. bu baax a baax donc xam-xam yëpp a baax ça dépend xam xam-xam du xam-xam mooy bon xam-xam ci xam xam-xam yëpp a baax léegi nag xam-xam bi bon ma ngay bonee ca na nga koy jëfandikoo la jubluwaay ba nga ca am moo koy bonal wala mu baaxal ko mais du xam-xam bi en tant que tel mooy tax mu bon il faut ngeen xam a ràññeet xam-xam ak jëfandikoo xam-xam ñaari mbir yu bokkul la yu taxaw mën ngaa ba noppi jëfandikoo ko ci jëfandikuwaay bu sell mu jural la njëriñ comme mën ngaa xam xam jëfandikoo ko ci jëfandikuwaay boo xam ne day day yiwadi day nekk musiba xam-xam ba nekk xam-xam bu bon du xam-xam mooy bon waaye la def ci xam-xam ba mooy baax wala mu bon kañ ngeen mën a ràññeet la la tubaab C'est important de comprendre les enjeux. bu loolu weesoo parce que li ñu bëgg expliquer au niveau donc de ce qui se passe en li xew Ukraine mënu leen koo comprendre réellement wallahi al azim mënu leen comprendre de façon claire et nette tant que xamu les jeux de puissance yi am au niveau des ultraloges. loge maçonnique yi ngand yi tiim adduna bi nga xamna ay trilatéral xam nga ay loge yo xamna am lolu naa def laay spécial ma ci ñëw pour expliquer leen ngeen dem gëstu pour xam ñooñu fofu ñoom fofu la ñuy daje ngeen foog ñoom bu ñu xëyee dañuy dawal góor jigen dañuy tas famille jël jigen ñi jox leen hôtel leen liggéey jàngal jigéen ñi libération les droits de la femme tout ça mais lan ñu ci jublu dañu am benn projet boo xam ne ça fait trois siècles ñu ngi togg mooy lan il faut détruire la famille cadre familial bi nga xam ne yàlla nee jigéen mooy yar góor mooy dundal góor ak jigéen nañu ànd ñu ko yàlla bëggee pour am doom pour perpétuer ñoom loolu lañ dañu koy yàq

jël jigéen léegi yóbbu ca bureau yi jël jigéen ñu dawal avion jël jigéen ñu lépp lu def ne ko jigéen di def nañ fay jox leen seen i àq jiital leen ba léegi boo xuloo woon a jigéen sax bu ngeen police jigéen bi mooy am dëgg yow da nga koy yooyu dañ koy teel dagg doom bi day teetu mu yóbbu ko ca crèche bi dans la ko jàngal yu ci seen projet la ñoom yàq ñoom yàqamtu ñoom buñ la buñu bëgg a yàq àdduna bi dañ naan ñun yàq-yàqu bi ñu bëgg amuñu ko àppaluñu ko fii ak junni at nañu fexe ba jam jamono bu nekk ñu am ñenn ci ñun ñoo xam ne ñooy doxal mission boobu buñu yàqamte même ñun suñu dee amul problème nañ fi bàyyi ñeneen ñoo xam ne ñun bu ñu dee ñoom lañu ko topp yàqamti wuñu ñoom loolu ñoom foofu lañu wutee ñun ñoom yàqamti wuñu dañu jël seen temps bu jël junni at dañ koy jël est-ce que comprendre ngeen di teg seen mission di yàq le cadre familial bu cadre familial bi yàqoo ñu ne léegi góor jigéen góor ak góor jigéen ak jigéen ñu ne léegi dañu leen jox ay droit gis est-ce que gis ngeen ni ñuy yàqee société bi est-ce que gis ngeen loolu est-ce que yéen yéen ngi remarqué dañuy yàq société école bi la njëkk tambalé droit des femmes yi wax tout ça indi ay ak jox ko femmes yi àq yoo xam ne moo ak goor àq ñi da nga mos a dégg droit des hommes droit des hommes mosoo ko dégg droit des femmes ngay dégg droit des enfants yooyu yëpp c'est pour casser le cadre familial bi nga xamné c'est le cadre naturel bi nga xamné mom la yalla sak ne yéen ni ngeen dundé goor jigen jigéen ngi ànd am dom dom ji bay yaay dundal nday yaay yar loolu yalla wax loolu bu ko waxee dafa am parce que jigen mooy jur mooy ëmb mooy génne mooy nampal nampal bobu ak dom ji dafa am ay liens yu métissé ñu né dédé nañ indi biberon yaa gi day xey liggéey xalé bi nampal jox ko meewu nak meew nag di ko nàmpal meew nag nday ji xëy liggéey suba ba doom gi doom ko gis yaa ngi xaajale nday ak doom cofeel ji waroon dox seen diggante la waroon a am seen diggante ñoom gis nga yaakam diñ de li ñu bëgg fii ak junni at daañu ko am ñun na dañoo yàkkamti ñun ndax boo wax ñaan njëriñ looy fekke njëriñ looy fekke moo loolu ngay njëkk nangu tant nangu woo li lepp nak fa ñu koy nasé xam ngeen fu koy nasé li may wax yépp li xew ci aduna bi yépp orientation stratégique yi tek ñom muy njàng mi muy walu science muy walu cadre familial droit yi juridique bi social bi lepp ñu ngi koy xalaté ci loge maçonnerie yi foofu la ñu dagee di ko xalaat xanaa xamu leen loolu boo xamul li xew ci biir loge franc maçon yi mënoo xam aduna bi fi mu jëm ak ni muy tourner ak lan moko ko sabab mënoo ko xam il faut nga xam le fonctionnement des ultra loges le fonctionnement des loges maçonniques nga xam ne ce sont des centres de, de, de, de, de regroupement des idées, les idées et les esprits les plus brillants au monde. Ils ne recrutent pas n'importe qui. Ils prennent les idées les plus brillants, les esprits les plus brillants au monde. Ils recrutent des gens qui sont laboratoire, des think tanks. Les lobbies francs-maçonniques sont des think tanks. Ce sont des ay gox la yoo xam ne xel muy xel lañ fa soxla soxla wuñu àddi yaak kuy mbëkk ku daanoo ku naan jul nañ ci géej gi soxla wuñu fa loolu ku jël sam xel teg ko ci comptable di xel ñoom loolu lañ fa soxla parce que lañ soxla mooy ay xalaat yu doxal àdduna bi lépp lu àdduna bi di kii li ñuy nas yëpp wàllu xaalis bi wàllu yoon Nations Unies fi ñu jëm football bi coupe yi ngay daw ah, ñu leen a football ñoom ñëpp di yuuxu comme ça duñu am jotu bu bi ñuy def loolu ñoom ñun ñoo ngi tëju ñun ci suñu loge maçonnique ñun di xalaat créer ay logiciel ay ordinateur créer réseaux sociaux yi Facebook yëpp na nga xam ne ñoom dañu nekk ci biir mel na ay béy ko soge seen xalaat seen bëgg-bëgg seen orientation seen lépp ñu di ko enregistré waaw ñu ñu di ko enregistré di fa ñu koy waxtaane foofu lañ dafa naaw yéen ngeen ngeen a bëgg a umbale bëgg a xeex ñoom bu ñu xëyee ne jaax jaax ngeen taxaw ci seen kanam naan da ngeen a xeex mais bu ñu leen ëffee ngeen daanu parce que ñoom bañu nas booba yéen il faut que ngeen yeewu nangu gëstu ñeme gëstu ñeme liir ñeme dem bibliothèque di xol di geustu dem jàngiwaat ubi xam yeewu nekk ay nit tànk nekku leen ko du ngeen xam fu ngeen dem c'est important Suisse la Suisse est un état neutre par tradition réew la boo xam ne bi yëpp bu ñu xex du ci bok Suisse mosut guerre du guerre dafa am aada yi nekk réew mo xam jam rek mo fay am ba bu guerre amee sax ñoom la jël ne leen kat yéen a war a àtte yéen a war a yónnee fajkat yi yéen war a taxaw ci digg taxawu njaaxaanaay ñoom du ñu far fenn Suisse loolu ñu jël kenn bu xeex indi humanitaire jàppale ñoom loolu lañ mës xam yéen ñi ko xam ñëpp tradition boobu tey Suisse boobu moo jóg moom ne day ànd ak Ukraine and wa autant OTAN ne dañ ne ne ne nañu dal ci kaw Russie Suisse musuko def c'est une première dans l'histoire de la Suisse Suisse bi boppam tay mo jóg fépp na day ànd ak day ànd ak Ukraine loolu nak loolu yeen mënu leen comprendre lu tax mën ngeen ko lire ni mais ah la tax Suisse jóg ba woné bopam ci lu mës def ci àdduna far féete tay ànd ak ñi ànd ak Ukraine moy wa autant États-Unis France li tax Suisse def loolu dafa am njàng dafa am tax est-ce que xam ngeen lu tax c'est pas par hasard que la Suisse nekk la capitale de de, de, de l'argent sale. Oui, le paradis fiscal, la Suisse est un paradis fiscal. La Suisse, c'est une place importante de la finance mondiale, la Suisse. Lu tax est-ce que xam ngeen lu tax parce que les ashkenazes yi may wax muy les faux juifs de l'Europe de l'Est yi may wax Crimée Ukraine euh, voilà ah, les pays qui sont autour de la mer Caspienne la mer Caspienne Fi xeex bi am tay jii nga xam ñom ñoom ñoo fa nekkoon di def lañ doon def ba wax leen ba Russie dakh leen le Tsar Russes dakh leen ñu dugg Europe de l'Est bi ñëwee dañu dem Autriche Suisse maa ngi koy wax sama live bi en France ñenn ñi am yeneen façon juifs yoo xam ne ñoom ñu au niveau de la Méditerranée et même voir les pays Maroc Algérie tout ça ils ont des juifs Hein? mais c'est deux types de juifs yoo xam ne bokkuñu gëstu ngeen xam donc am ñu installé Suisse bi ñu ñëwee ak seen i alal ñoo jël xaalis bi di ko lebalaate di ko jox buur yeeg yooyu créé benn confédération suisse helvétique am na dëkk bu tudd Bâle en Suisse sànq maa ngi wax sama yoo xam ndax yéen a ngi suivre leur dieu s'appelle Bal, le dieu satanique xam nga bi nga xam ne ñoom mooy seen yàlla le Moloch am am ñu ko tuddee Moloch Moloch ak Bal ñoñu seen ay yalla lañu yalla yo xam yalla yàlla la ñom seen yalla la yalla yalla jóge na xaalis ak deret moo koy dundal xaliss ak direct Suisse amna na dëkk bu tudd bal dëkk bobu lu tax ñu tudd ko bal dem leen ngeen gëstu di ngeen xam lu tax bal bi nekk Suisse tudd Bal, Ben. lutax la lutax la réglementation bancaire mondiale moy toutes les lois qui parlent donc de comment les banques fonctionnent la réglementation bancaire mondiale l'institution yi yore banque yi mi ngi mi ngi Suisse mi ngi d'ailleurs la réglementation bancaire du monde s'appelle Bal à chaque fois vous avez une réglementation BAL 1 c'était la première réglementation Vous avez une modification soppi pour BAL 2 là ils ont déjà indi ay ont UBS bees la nouvelle réglementation bancaire On va mettre en live spécial et les conséquences de ces de cette troisième réglementation qu'on appelle BAL 3 Vous ñu mettre en œuvre launch en 2022 mais dañu ko repousser à cause du Covid des choses comme ça mais ça va arriver et ça va faire rase au niveau des banques africaines les banques africaines il peut disparaître parce que les nouvelles réglementations non yi ce sont des normes donc draconiennes par rapport au cash flow le fonds il y a un monde de banque qui va am pour emprunter de l'argent au niveau de la banque centrale et qui dit donc emprunter de l'argent au niveau de la banque centrale dit financement donc de l'économie qui dit financement de l'économie dit création d'emplois création de richesse donc tout yi dem nous ba gens na ñoom léegi ñun ñu am de banque yi des ngi ay qui ak yooyu banques, banque lañ bëgg pour renforcer donc ce qu'on appelle les fonds propres donc de ces banques là

ñoo nekk ci ginnaaw Rockefeller Rothschild les Askenaz ñoom ñoo téye l'économie du monde ñoo def kidnapping la fédérale réserve américaine la banque centrale américaine bi yor dollar bi ñoom dollar bi euro bi ñoom ñoo banque centrale yi monde bi ñoo ce sont des familles ce sont des Askenaz donc Suisse mooy seen capitale Suisse mooy la capitale de ces sataniques là moo c'est pas pour rien que le forum de Davos Suisse Schwab bi nga xam Suisse Schwab xam ngeen Schwab FIFA FIFA Zurich pourquoi vous yóbbu FIFA foofu l'OMS, OMS fu OMS nekk OMS dama leen laaj <laughs> il faut une gëstu sur l'état c'est un petit état la Suisse mais un état très puissant parce que cabal c'est un bi foofu la toog seen seen yàlla ji mi États-Unis yàlla baa ngi Suisse yàlla yi yàlla yi féticheurs yi yàlla yi kabbalistes yi nga xam c'est des faux juifs c'est des faux francs-maçons c'est des faux en tout nous ñoo téye à bi tout xam na loolu parce que nous ngi seen je parle de Klaus je parle de Klaus pour ceux qui connaissent ils connaissent qui est le Schwab donc euh, moo tax gis nga FIFA dàq nañu Russie gis nga ñoom ñëpp ñu ngi génn ñoom ñëpp ñi ngi feeñ nag ñoom ñëpp ñu ngi feeñ fépp fu Russie nekkoon ci organisation internationale ci yéen xaar gis nga ñoom ñëpp ñi ngi koy seet benn par benn lool nak moy c'est le signal c'est le signal Dieu parle aux gens dotés d'intelligence Dieu parle en signe man Suisse du jógee réagir damay xam tax mu réagir mais yeen li ma leen expliquer ci Suisse su ngeen ko xamul bu Suisse jógee ne nañ dal ci kaw euh, Russie du ngeen xam tax Suisse def ko te mosu ko def parce que dafa am tax ñoom dañu nekk à leur fin système bi ngi dawal ñoom système satanique bi dafa commencé jeex c'est à la fin moo tax ñoom ñëpp ay jëfalu léegi nak ñi gën bu ñëk dañu nekk ci biir di ko di jox seen i pion kenn du xam nañ dem ñu yeewu nak dañ koy fuddan ba kenn du xam mais crise ukrainienne bi Ukraine c'est un pays ashkenaz Ukraine les ashkenaz et les et les nazis sont des parents Hitler ci seen bopp la bokk Hitler bi deuxième guerre mondiale moo ñoom Hitler ñoo and ñoom ñoo pousse Hitler ñu créé guerre bi ñu sacrifier Hitler parce que ñoom noonu lañ def ñoom amuñu état d'âme bu ñu bëggee benn projet nii bëgg ci àgg dañuy jël ñenn ci ñoom ñenn ci ñoo xam ne ñu ngi ci ñoom ñu monté leen formé leen dugal leen pour ñu dox projet bi ñooñu kooku ne damay dee ñu ne waaw dañ lay sacrifié yow xam nga kuy sacrifier xale bu ndaw bébé ko jël di ko dugal ci safara ngi sa yàlla waxantu la ponkal mu taxaw bokk ci yow bu fekkee ne da nga bëgg orienté àdduna bi il faut que guerre am da ngay jël ci ñi nekk ci seen biir nga jël leen ñoom Hitler dañ ko jël Hitler ñoom ci ñoom la bokk ñoo ko jël monté ko armé ko jox ko xaay jox ko yépp fal ko Allemagne mu ñëw taxaw ñu imposer dictature jox ko alal mu def la guerre mondiale ñoom ñoo wëlbatiku war a rey ko te liñ ci jublu woon nak mooy taxawal un nouvel ordre mondial à partir de 44 après la seconde guerre mondiale 45 avec les institutions de Bretton Woods la banque mondiale le FMI les nations unies l'OTAN tout ça ñoom ñoom bu ñu bëggee dara daf leen jaral ñu sacrifier ay nit lu dara ci ñoom te bu ñu sacrifier mën nañoo jël ci seen biir am ñu sacrifier parce que parti bi boo koy signé da ngay pare pour dee le don de soi pour la patrie bi Ousmane Sonko di wax ci Pastef dafa am lu muy tekki moo tax maanaam naan la mooy don de xam nga sa bakkan moomatoo sa may wax leer na parce que damay wax pour bëgg xel yi tàkk waxuma ooma jotu waxantu ooma du télé fii Vous Fille, ma ma fille c'est mon temple fille il faut géomètre pour y accéder temple de fille il faut savoir tracer des lignes faire de la géométrie dans l'espace savoir résoudre des équations à une deux trois inconnues voilà ici voilà il faut être ça celui qui n'est pas capable de faire la géométrie dans l'espace il n'a pas sa place dans ce temple là c'est un temple de savoir ici il faut il faut une lui pour il faut une savoir. Tag de xel di xalaat di réfléchir seen di tourner ko place la Suisse tay mo jóg di parce que Vladimir Poutine ça fait 15 ans 20 ans mi préparé li tax li ngeen li xew xam ngi li fake news les les médias mainstream la médias yi nga xam ñom nañ nga George Soros mom na ma ngay wax waaw na rapidement Ukraine Ukraine c'est Ukraine c'est quoi lan moo nekk Ukraine ba tax ñoom ñëpp àdduna bi yëpp jóg àdduna bi la cabale ñoom ñëpp ñu jóg fa ba ci Suisse bi nga ne dafa mas a làqatu ne ji yàlla mu leen di c'est la fin de leur règne loolu ko wax ñoom seen i jeex na xam nañ ko àdduna bi dafay dugg ci nouvel ordre mondial par force ñoom nag dañoo amoon seen nouvel ordre mondial bi nga xam ne moom la leen Macky Sall wax nag ba ñu ko taxawalee nag yàlla ñëw ne moy àdduna bi ba ba léegi li àdduna ñun ñëpp ci ay fan lañu juddoo ñun ñi di wax ni àdduna bi ñu juddoo yëpp ay fan rek fi nek pendant des millénaires àdduna bi ci ay fan te ñoom ñoo ko fi def fen yoy nak mo am app ndax yëkkati boo gis day am daal ñom seeni i fen moo nar a jeex te dëgg moo nar taxaw ci kaw àdduna néw na naa leen année 2022 du ci caaxaan ci ñi may suivre wax naa ko ci live année bi ñu nekk ni du ci caaxaan de xamu leen fi ñu jëm affaire bi ñom ñoy wax pétrole gaz tout ça c'est vrai ce sont des conséquences mais c'est une guerre spirituelle il faut aller lire l'autre Samir Huntington le choc des civilisations vous allez comprendre

il est calme parce que <laughs> il a été formé Ni il faut que nga xam psychologie <laughs> il faut être intelligent calme posé mais sûr Puis boo teg nga xam fu ko commencé de commencé de de ñom a nit yéen bu amee seetlu gëm yàlla xam yàlla waaye ñu bari xamuñu yàlla mais bu yàlla ngeen xam ne lii mbiru baatin li ngeen wax naan ci géej géej sëñ yooyu du baatin lii mooy baatin baatin mooy lii benn nit taxaw ci bi ci de fer àdduna yi loxo yi nekk ci àdduna bi yëpp ànd na mënuñoo weñ benn loxo benn nit loolu baatin la am na lu tax am na lu yàlla namm loolu baatin la te ki ñu koy defal du ree du xaqataay mii ne teg boole wu ci wax wax ji bari yéen ñëpp xaw kenn xamul lu koy wax ji bari waaye lu mu ne nii da ci dem ba jeex mu jóg taxaw fëgg ci àdduna bi dal ci kaw Ukraine ak Ukraine nga xam ne Ukraine mooy xoolu satan yi saytaan yi seen i maam ñoo sañtoon Ukraine ñoom ñii ay Rockefeller ay Rothschild ki ay Soros ki ñoom ñii saytaan yi mooy les Ashkénazes la seen i maam ñoo sañ ci Ukraine ba leen saar russe bi daqé fam len daqé won moy ukraine Ukraine gi ñu nek ni Ukraine gi ñi xé tay fofu lañ len daqé won ñu dawé fo dem dugg Suisse ki euh jeune euh Autriche ki euh Allemagne ak yooyu ñi nekkon Allemagne nak ñooñu ñoo transformé wu nek ay nazi nazi yi ngeen gis Allemagne nazi yi doon xex ñom ñep ay ashkenaz lañ Hitler moy seen mam nazi motax bu ngeen déggé Vladimir Poutine ne dañuy dugg Ukraine raxas ko ñu ñu nekk lay raxas mu ne néwo nazi ne yéen da ngeen dégg mais du ngeen dégg te xex bi ñuy xex ni communication bi dañ ko codé motax jeul yàlla ci bopam gis nga yàlla du wax ak dof

Poutine nee na dafay dafay dénazifier Ukraine loolu sa foor de <laughs> yéen xam leen li muy wax de il lay lay bi coow lee bari guerre seconde guerre mondiale Russie yoo xam ne dañ leen a dañ leen a communication seen propagande yi mais seconde guerre mondiale bi américains yi gagné wuñ ko africains yi gagné wuñ ko France européens yi gagné bu Russie ñoo woon musiba moo tax Poutine ne leen dañuy dénazifier waat les néonazis yi nekk biir Ukraine nañ leen duma waatee fii fii nazi du fi c'est une guerre spirituelle li ma leen wax jàpp leen ko xeex bi ñuy xeex ne du xeexu matériel du xeexu domination du xeexu non non xeex la boo xam ne Poutine yàlla moo ko yónni yàlla moo ko missionné Poutine ci ndigalu yàlla lay doxee dama bëgg ngeen xam loolu Poutine borom bi subhanahu wa taala moo ko may kattan moo ko may doole moo ko may fit yónni ko pour que mu taxawal dëggam gi ci kaw suuf te dina ko taxawal insha allah rabbi loolu laa bëgg ngeen comprendre ko il faut ngeen xam les enjeux mais bu leen nekk ci kaw rek di wax ku ñëw yóbbu leen ngelaw lu ñëw ëff média bu ñëw ah ngeen tiit non chercher à comprendre man je suis stoïque je suis serein rien ne m'importe parce que je comprends les gens ku wax rek dina xam tax nga wax parce que damay xam la làqu ca ginnaaw la la tax wax la tax nga genn ak fa nga bokk dama man j'ai des cages ah je suis pas comme vous man je vous le dis en toute modestie man j'ai des cages monde bi yépp ku ci réagir ku ci nek dina xam tax nga réagir parce que dama lay top damay xam sa origine xam lien yi nga am ak diw ak diw ak diw xam loge yi nga bokk ak fo bok xam lan mo tax nga réagir tout ça ni ma Macky sal di réagir ngeen xam na Macron moko moko yoni ko yónni ngeen ko xamee

ceux qui se font à votre niveau il faut ngeen xam loolu ndax ngeen bëgg a ak franc-maçonnerie te liy doxal àdduna bi yëpp foofu lañ ko nase ngeen yeen yéen du ngeen ci wax du ngeen ci xam ngeen jàpp ne ab religion la franc-maçonnerie n'est pas une religion la franc-maçonnerie du diine du religion du pas-pas ab kuréel la boo xam ne musulman yi ñu ngi ci biir athée yi ñu ngi ci biir catholique yaa ngi ci biir yahud yaa ngi ci biir góor yaa ngi ci biir jigéen yaa ngi ci biir ñëpp a fay daje am nag lu ñu gëm gëm bi du wàllu gëm yàlla waaye gëm ne adduna bi dafa war a doxee nii adduna bi dinañ ko war orienté nii nit ñi nii lañu war a mel coppite yu adduna bi ñun ñooy gouverner adduna bi ñun ñoo am adduna ñoo koy doxal ñun loolu mooy seen gëm-gëm mooy adduna bi ñoom di yàlla koy doxal wala serigne bi wala kay àddina bi ñom ñom nit ñi ñom ñoko wara doxal ndax ñom dañu gëm ne ba yàlla ne yow doomu adama bi wacc na la ci kaw suuf nga nekk sama khalifa ci kaw suuf defal na la fi lépp bàyyi la fi nak lu nga dundal suuf si yow doomu adama bi ñom loolu dañ ko dégg ñom ñom dañu nekk ci kaw suuf ñun àdduna bi ñun ñoko doxal yàlla wacc na ñun yàlla amu lu fi defal utu fi dara bu fi ñëw soxla soxlawuñu ko ñun jox nañu xel ta te tàggatañu àdduna bi léegi li def ñun ñoy dawal soxla soxlaatuñu ko ñom ci loolu lañ nekk ay pexe motax ñëpp nekk fa nak musulman yaa fa ay julit ay catholique ñëpp fa nek yéen ngeen jàpp ne franc-maçon yu diine dedet déedéet franc-maçon du diine musulman gis franc musulman gis jumaay franc-maçon musulman gis église franc-maçon am nañ nak ay fu ñu dégg di waxtan mais musulman gis franc-maçon bu ñaan fi la ñuy fi lay jaamoo mosu ko gis amul ci biir franc-maçonnerie ñoo xam ne ay féticheurs ay ay ay nit ay iblis lañu ànd seytaane pour am doole am puissance di ay nit mooy baal boobu ma lay wax molok daf ci am seen biir ñoom ay millénaires avant Jésus-Christ ñoom dañoo yàgg dund di sacrifier am alal ak ñoom ñoo téye àdduna bi ñi seen biir mais ñi ngi xëccoo Poutine li mu génn nii daf leen défier xanaa xamu leen Poutine xam na déglu da ngeen déglu ay discours bu baax a baax wax na ci lu bari waaye gis nga ba mu ko yëgatee dañoo jóg tegal ko kabal pour moo gagné élection États-Unis mais dañ ko foqati ci moom parce que xamoon nañ ne kii bu faluwaatee deuxième mandat tey jii lii am ak Poutine ñoom ñaar tey bu ñu fekkante woon mu nekk Maison Blanche tey moom Donald Trump Poutine nekk Moscou ñoom ñaar ñuy coordonné ngeen foog ne OTAN da yëngu OTAN bi kon Macron ngi jooy Poutine dafa annoncé couleur na man dootuma def xaalis bari ci OTAN yéen France ak yéen dem leen ngeen gérer gi seen dem leen ngeen gérer gi seen bopp man du ma ci defati xaalis OTAN da doon tas Poutine dafa bëggoon a tas OTAN parce que Poutine comprendre na dem leen ngeen gis ngeen déglu Poutine bu baax a baax tabal yi ma leen wax yëpp Poutine wax na ko ci avant ci biir campagne bi dañ leen di fen dañ leen di complot démocratie amul élection yi ñuy wax sax amul dañuy sàcc élection yi dañu am ay logiciels yoo xam ne day dëpp ay élection lépp Poutine wax na ko ñu fexe ba yëkkati ko ñoom ñëpp ñu complot média yi CNN gisoo ni kabal bi ñu tegal Poutine pour teggi ko parce que xam nañ ne kii bu faluwaatee musibam mais c'est un homme éclairé voilà euh, Donald Trump il comprend parce que ni ñu ko montelé li am ci nguuram musta am mu gaño ñu foqati élection yi ji ñu ko né dafa toj capitole dafa gën a dafa ko kabal ñoom Hillary Clinton et puis ñoom ñooñu nga xamné non mais c'est incroyable ay Obama nek ci biir ñu nek ñoo xamné c'est des gens sataniques taxaw gauche comme droite nag républicain comme démocrate ñoom ñëpp ñu ànd def seen complot lobby mais ñan ñoo ànd ak Donald Trump ñan ñoo ko gëm ñan ñoo ko top aux États-Unis ce sont les puritains les américains puritains yi nga xam ne xamuñu contraception des gens yo xamné ils sont des catholiques purs ñoo xamné ne dañu xam Yalla gëm Yalla ñooñu ñoo ànd ak Donald Trump c'est l'Amérique des profondes l'Amérique puritaine l'Amérique pure ñoo ànd ak Donald Trump pourquoi est-ce que comprendre ngeen lu tax est-ce que vous avez compris vous n'avez pas compris xel dafa cher mooy li gën a sophistiqué ci lu yàlla def ci doomu aadama mooy li gën a sonal yàlla xel mu jox la ko nga yàq ko sànni ko nelawal ko génne ko sànni ko ci àll wala ko jox ko ab sëriñ subhanallah fu jëm les codes nucléaires lool la moo tax joxuñu ko Biden lu tax les codes nucléaires joxuñu ko Biden parce que dans l' armée américaine daf ci am des généraux yoo xam ne ànduñu ak Biden ànduñu ak nouvel ordre mondial bi daf ci am des généraux yoo xam ne ba léegi ñoom pouvoir bi ñoom ñoo ko yore Biden n'a pas tous les pouvoirs moo tax préparé wu leen bu mu leen bett autant du réagir parce que ci biir armée américaine bi le commandement de l'OTAN ce sont les américains donc bu mu leen bett ñoom ñu nooyal moo gën gisee Emmanuel Macron di jóg di dal nan day yónnee ay matériel militaire Allemagne bi nga xam ne ñoom dañ leen a désarmé woon depuis la seconde guerre mondiale mosu ñoo am ay armement waaye ña ngay yëkkati ay armes dañ koy yónnee Ukraine waaw léegi ñoom naka lañu mën a amee Autant. je vous pose des questions hein. moi je suis dans la moi je suis dans je suis dans la stratégie de défense la géostratégie ñoom ñu ne ñoom ñëpp membre OTAN Vladimir jóg dugg Ukraine dal ci kawam ñoo dañuy jàppale Ukraine waaw xanaa jàppale Ukraine xanaa autant, bi ñu bokk ñoom moo waroon jóg jàppale Ukraine pourquoi autant jàppale wul Ukraine pourquoi autant? ba léegi déggu leen ko mu yëkkati benn avion wala mu def dara contre Vladimir Poutine defu ko France moo lëkkale ci fii Angleterre lëkkale ci fee kenn ku nekk Suisse lëkkale ci fii kenn les sanctions qui sont fait contre la Russie sont des sanctions bilatérales maanaam dëkk bu nekk yaay xool la la neex nga sànq nga teg ko Russie mais amuñu sanction au niveau de l'Union européenne même Union européenne ça dañu jël ay sanctions en créateur mais c'est pas l'Union européenne qui sanctionne ce n'est pas l'OTAN qui sanctionne c'est la France individuellement Allemagne individuellement Suisse individuellement ñoom ci seen bopp dañoo commencé tasse, moo tax ma ne la Poutine dafay tas Europe te bu ñu deful ndànk conséquence yi mooy Union européenne ci ba xam mooy tas ils sont 27 boo moytul ne ñoom ñëpp Union européenne fi la yem dootu la mën boo moytul day tas ku nekk dellu fa nga newoon te loolu Poutine va risque de réussir cela parce que le commandement intégré bi nga xam mo moo yor seen sécurité ak sen karange muy l'OTAN américains yi ñoo ko di le commandement de l'armée de l'armée américaine amna ay généraux yo xam ne ñu ak Biden parce que niñ ko sampé xamnañ bu baax li nek ñom xamnañ cabal cabale bi xamnañ Amérique dafa existé wul la puissance américaine le dollar américain la réserve fédérale américaine la Washington ñoom dañu gis né Washington c'est pas pour les États-Unis Washington cabal ici, les askanazes là ñoo ñoo infiltré ko la Maison Blanche est une maison des sataniques Trump loolu la commencé on raxas ñu teggi ko ko ci àll <laughs> ils ne peuvent pas attaquer la Russie pour soutenir l'Ukraine car ce pays ne fait pas partie de l'OTAN. Mais la Libye ne fait pas partie de, l'OTAN. Ils avaient attaqué la Libye. C'était le commandement de l'OTAN hein, qui avait attaqué la Libye. Ouais. Pourquoi l'OTAN avait intervenu donc au niveau de la Libye alors que la Libye n'est pas un pays membre de l'OTAN L'OTAN attaque les faibles, exactement. C'est pas que l'OTAN, hein. la France attaque les faibles

fekk dañoo jàng lu ñuy xeexe jàng lu ñu ko pendant ce temps ñun dañoo tubaab ñoom da ngay ñu dugal salle de tir ngay jàng fetal anniversaire ñu tuddee fetal américain anniversaire fetal la ñu a ma ko def yow solution yi pour que ñu mën intervenir léegi en Ukraine nee nañu mooy président ba sax génn bi Vladimir Poutine ak Vladimir xaw moom nekk membre Union européenne léegi bu jëlee risque di ubbi ay négociation ay waxtaan yoo xam ne dañ koy baral gaawal ko pour que Ukraine mën bokk ci moom nekk 28e xaw ma 29e pays membre de l'Union européenne bu ko defee Vladimir Poutine day dal ci ko Union européenne parce que boobaa sanction dina Vladimir Poutine jooli jooli ba léegi téewagul pétrole am téewagul de téewul bi baleen téewul bi bëree bëri bëri te su boobaa <laughs> eh, yàlla boo xarit dëgg dëgg dëgg dëgg ca yàlla ah nga xam ne yàlla du nit waaw ah, Zelensky waaw <laughs> Zelensky moom ma nga bëtt ay bëtam di jooy man nag ah gars de dañ laa dugal ay ay ay ay el ay plume ay plume nga yaakaar naaw ñu bàyyi la nag nga ne nga ba ci kaw centième étage ne da ngay naaw ndax plume yi gars ba mata nga tàllal say loxo nekk nekk nekk nekk amoo plume yu baax amul yuuxu de amul yuuxu

parce que boo fi nekkee di am yërmande gi kii dañ ñoom ci boppam Poutine bu nii mu ko def bu ko deful woon ñoom ñoo koy rayee de la du amati ñoom te loolu mooy seen objectif lañu bëgg mooy faire avancer l'OTAN dëkk yi wër Russie yëpp ñu wër ngam Russie ba nga xam ne du mën jaam topp seen ginnaaw ñoom nag ñu nekk benn monopole adduna bi yëpp benn cadeau fi am muy ñoom képp ñooy wax loolu loolu loolu loolu adduna bu tukki la bu ñu ñu jël lan la Ukraine représenté Ukraine mooy lan ak fan la toll ak lu mu lan mooy dayoo Ukraine ba tax àdduna bi yëpp taxawoo ñoom ñëpp bëgg dal ci ko Poutine lan la Ukraine di représenté ci ñoom du xaalis du alal leneen la ay valeur la dafa am ay valeur yu bon yu ñu seq yoo xam ne kesaan li foofu la jógee Ukraine loolu la ñuy bëgg sàmm ñoom sàmm sàmm sàmm lu mbon moo tax àdduna bi yëngu moo tax ñu yëngu li ñuy def yëpp bëgg a sàmm seen lu bon la ma nga bët ay bëtam di joone di woote wàllu putin nak nee ko comme ah, yaa joy legi amul problème léegi naa la yónnee ay nit ngeen toog waxtaan ngeen toog waxtan ña ngay waxtan waye buñu joge ci waxtan daañu xam ne lépp dëgg la mom li Poutine moom li bëgg mom ñoo xamna naa xam naa ko ko defal ndax Ukraine mom bu ci putin paré da naka la fay des ap chomp lay doon chomp bu ndaw Tchétchène yi ña nga ànd ak ñoom di xex legi ñi nga xam ne ñoom ñeneen ñoom ñoo and ak Zelensky moy moy moy moy moy président Ukraine bi bu buucaa bu yoy nga xamna ne ñoom la jox armée ñoo ngay xex dañu dem ci seen daralu seen daralu mbam xuux yi da nga maam jël bali bali daal ko dugal ci gimu mbaam xuux yi ba mu tooy comme nee nañ cecene julli du lek mbam ñu ne bali yi ñu leen raré yeen doomi haram yeen julli ñu waa cecene ñom ñokoy wax de seen wax doomi haram yeen yéen cecene yeen yéen yéen comme ay julli ngeen du ngeen lekk mbaam doomi xaraam bal bi leen ray mom ci gémmiñu mbam xuux bi lay gënné <laughs> dañ ko dugal ci gémmiñu mbam waaye taatu mbam xuux bi dañ ko dugal ba mu taq taq rip xam sobe la ñu dugal ko suñu fetale bu kuñ ci kuñ ko dóor ci bop da ngay dé dégu bon ñom ñoo koy wax de ña ngay propagande bo boole wu ci wax mom <laughs> ngeen fogg foog ne jullitu cecene yoyé musulman cecene yoyé ngeen fogg na ñom lan moo leen dugal ci xeex bi ñu tax jullit jullit yooyu ci Tchétchène ñooñu gën a nekk ay jullit Tchétchène ñooñu gën a gëm yàlla ñooñu ñooñu man ci jaamu yàlla Tchétchène ñooñu man fuuf seen jullit moo gën a sell suñu jullit ñun ndax ñoom amuñu ay sëriñ xamuñu ay takk ay xarfa fuuf ak yi xërëm yi xamuñu ñoom ñooñu gën a sell Tchétchène yooyu lan moo tax yàlla wan leen leen ànd leen ak Vladimir loolu moo lay xamal ne li bëgg mi ngi ci loxo Poutine li yàlla bëgg ci àdduna bi Poutine moo ko téye Poutine da a àndal ko ànd ak ñeneen ñi rek seytaane nga Iblis nga àndal amul dem dikk mais Poutine xam na leen léegi nag ñoom mënuñoo dal ci kawam benn mooy amuñu doole ji mu am ñaareel bi mënuñoo dal ci kawam parce que pour nga dal ci kawam il faut nga amul lay te may leen wenu lay ñetteel bi mooy Poutine leen a yàgg topp ci ñuy def ay tuux dina ñoom di fen di sos di guerre di toj àdduna bi yëpp foo toj nañ ko ngi ci ay fen ci seen i intérêt lii mu ànd ci li li mu bañ ci and waye faalé wuñ ko ñu def la ñuy def nako yow bayil ngir gëmal sa bët li mu ne pat japp njàmbaram di leen setan di leen dagalel mom xam na bi dina ñew mu dal ci seen kaw te bis mu dalé seen kaw ñom duñu xañu a di ñaxtu ndax su boobaa danaan leen yeen ba ngeen duggé fi da ngeen def li taw leen ko def ngeen dugg fe wala leen ko def fi mu limal leen seen i duñu yëp da leen nak dama leen bayiwon ngeen def leen neex legi man nak ma ay man da ngeen may bayi may ma def li ma neex te ko ay wal sa moome te man dama bëgg togg wata boor fi tol ni yeen mu kenn du wax ñi ngi yuuxu way kenn du wax ndax ñom bañu ñu wala ñu seen jéré mom na tay jéré suusal la def wata borom ju baax rey ab gattam kenn du ci wax mi ngi am doole Corée du nga taxaw ñoom ña ngay i paaka yow wax ñu rek joxoñ rek foo joxoñ ñu sànni ko fa <laughs> Corée du Nord chinois yi ñu ngi wax moom ci suuf mais ñu ngi ne pat dañu nër mais <laughs> bu ñu demee ba fi tàng ñoom dañu rangé <laughs> ay sanctions économiques yaakaar na mën nañu daaneel l'économie russe russe yàgg nañu leen sanctionné ñoom xam nañ bu baax ni ñu leen sanctionné yàgg nañu am nañu des moyens de résilience yoo xam ne travaillé nañ avion russe dootu yéeg seen espace aérien européen moom tamit <laughs> ah, day am conséquence ci ñoom mu des nag pétrole beeg gaz beeg ak am na gaz mais gaz am commencé guñu ko exploité moom tamit day nekk nag au cœur nag de de des enjeux Parce qu'au-delà des enjeux donc, militaires, stratégiques, il y a des enjeux aussi économiques et financiers. Euh, le gaz, aujourd'hui, effectivement, c'est important de le dire aussi. Mais le lepo, ce sont des conséquences de la guerre spirituelle, la guerre donc des valeurs. Euh, le choc de civilisation avait donc prédit, et aujourd'hui on y est, quand on binde. Euh, deful prédiction de du amul baatin de du du du maam du ci géej gi de samit mais nit la kuy gëstu nit la koo xam ne dugg na ci lobby yi xam amna am na lu mu dégg koy wax di ko parce que ñom li xew tay li xew tay ni ñom biñu koy waajal covid bi ngeen gis rek nouvelle ordre mondiale bi koy waajal di ko yeesal 50 ans 100 ans dañ koy waxtaan yàkkanti wuñu mënuñu na ñun

le comportement de pas mal des pays de l'Amérique latine, Cuba, Venezuela, de yooyu il faut voir comment ils se comportent. il faut encore le comportement de l'Inde le Pakistan l'Inde et le Pakistan xool leen naka la comporté wu crise la deuxième phase Chine c'est important la Corée du Nord moom amul lu ñuy observé ñoom xam nañu ñoom ñoo ña nga braqué seen déglu c'est important c'est fondamental Nous ñuy wax principalement les acteurs des relations internationales les plus visibles et les plus donc et eh, machin, ou du point de vue donc, stratégique, du point de vue militaire, donc euh, à part bon, l'Union Européenne, les États-Unis, ça c'est l'OTAN. Euh, donc voilà les acteurs hein, de l'Iran. L'Iran aussi, il faut voir l'Iran. C'est important, donc ce sont les acteurs majeurs euh, donc, dans la scène internationale. Et ça c'est important d'observer le comportement par rapport à la crise parce que rien n'est anodin. amul lenn loo xam ne ko def par hasard lu ki nekk rek dafa explication am compréhension am fu mu am lu ñu war ko xam ñi nga xam ne ils sont dans ils sont initiés ils savent ñi nga xam ne xamuñu xamuñu dañuy spéculer rek il faut faire très attention à la bataille de la communication. C'est fondamental. La première guerre, la plus dangereuse, c'est la guerre de la communication, la guerre de la désinformation, la guerre de l'intoxication, la guerre de la bataille de l'opinion. Faire que nous gëm li ngay wax di sos ci yépp ci bataille de l'opinion qui lañ taxawé Colin Powell qui taxawé au niveau du Conseil de sécurité né Irak dafa am arme nucléaire dafa nek di enrichir de l'uranium pour défendre de l'arme nucléaire sur la base du mensonge jël benn pipe def ci benn poudre taxaw ñëpp di wax ñëpp di gis Nations Unies mu yëkkati ko ne voilà la preuve que Saddam Hussein enrichi de l'uranium pour faire donc euh, de un développement donc euh, du point de vue nucléaire fen yooyu ki la taxaw ba dal ci ko ba rey ko ba jaxase Irak ba Irak ba léegi nii ba léegi mënu dem te am nañu recherche am lépp ci fen ci mensonge l'industrie du mensonge moom la moom la moom la Poutine di wax moo tax il faut que ngeen def très attention par rapport à la masse média bi ngeen di jot les désinformations ce flux euh, d'informations bu bëree bëri bëri te lu ci bëri c'est de la manipulation j'observe RFI France 24 les médias français maa ngi mais dama parce que maintenant ni, j'ai constaté quoi il faut faire très attention et ça ça n'a pas commencé avec l'histoire de, de l'Ukraine hein. depuis la crise malienne depuis la crise malienne là il y a tellement de fake news véhiculées par les médias français sur la crise malienne et ils sont en train de faire la même chose au niveau de la crise ukrainienne contre la Russie D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé donc de. Je ne sais pas si ce n'est pas fait là, il faut vérifier. Au moment où je parle peut-être même, il y a de, Yves Le Drian, Jean-Yves Le Drian, qui devait sortir là, qui devait faire un communiqué par rapport aux suspensions des deux chaînes russes, Sputnik et euh, RT. France qui sont des deux chaînes russes qui y en a démocratie la France c'est un pays démocratique ils ont des valeurs des valeurs de liberté des valeurs de démocratie des valeurs de liberté d'expression c'est ce qu'on hein. les États-Unis la France hein. mais que est-ce que vous rendez àdduna bii ñu nekk ñun ñi nga xam ne ci lañ judd àdduna boobu mooy jeex pour indi àdduna bu bees ñoom ñoo ko tuddee nouvelle ordre mondiale wax nañ dëgg àdduna beneen àdduna bu bees mooy ñëw bokkul ak bii moo tax léppay feeñ ñi daan taxaw naan démocratie liberté d'expression média tout ça ñoom ñoo taxaw ne dañuy tëj ay télévision fii France ak Europe foo xam ne nee nañu télé yi dañ koy tëj loolu yéen lan la loolu loolu dictature la loolu ñoom ñi ñuy xeexal ñoo daan def loolu léegi ñoom ñi def loolu ñoom moo leen xamal na jeexal nañu lii Chine ko daan def Russie ak yooyu ñoon ay dictature la ñoo amul démocratie yooyu ñoom loolu doon ŋàññi de léegi ñoom ñi doon ŋàññi loolu léegi ñoom ñoo ko def moo lay xamal ne yëf yi jeex la lan gu tas la Ils ont fait pareil contre, Donald Trump, les élections américaines, elle avait des élections, avant la campagne, les nuls diaboliser Donald Trump. doomu lappatoo noir yëpp Trump dafa raciste Trump il y a ay waay waay gis naa fi ay ñoo c'est des pseudo intellectuels dans les réseaux sociaux ah. à l'époque ñu a ak Trump il ah, ñu a ak Biden ah di ko tagg Biden contre Trump Trump avec son mur contre le homeland dafa raciste bëggul noir yi gën a mën a xool doomu lappatoo yi ils jugent tout en fonction des couleurs ils sont comme des gamins les enfants aiment les couleurs, coloriage. les africains là les blagues là bu leen bëgg a rek patate coloriage jox leen feuille bu feuille bu ak coloriage ñuy colorier c'est des gamins ñoom tout ce qui est complexe les échappe ils sont pas paresseux duñu xalaat c'est que c'est des enfants ñoom bu ay enjeux amee des enjeux mondiaux utal feuille bu weex jox leen ak ay crayon de couleur ni colorier coloriage bu leen bëggee naax jox ay couleur ils savent pas imaginer ils savent pas aller au fond des choses coloriage xale yu ndaw yi may jox sama doom yi coloriage ñoom ñoom ce sont des éternels gamins les africains surtout sénégalais yi coloriage rek jox leen ñu dessiner Trump kër kër man eh, ay waay xool sama mbokk yi xam ñu black américain yi danduma ñoom Trump ñu ci bari ils ont voté Biden les black américains parce que ñu ci bari ils pensent qu'ils doivent être démocrates ñu ci bari ils pensent que parti démocrate moo leen parti démocrate bi parti bi gën a yées parti démocrate américain bi parti bi gën a yées ci Biden bañ ko falee mom gis nga ministre bi goor jigéen ñi ñoom ñëpp bañ ko falee mom li ñëk def moy jukkil goor jigéen goor góor jigéen la ñëk a te Donald Trump est contre les homosexuels Donald Trump est contre tout ce qui est anti valeur il est contre ku mel noonu naka ngeen ko mëna a yeen ko xamna day xéx pour les valeurs yéen ngeen da ngeen koy day bañ balaa ñëw man maa Donald Trump d'accord naa ci ak moom bu fa benn nègre dem bu fa asiat euh, latino lu ñu d'accord naa ci bu fa kenn dem na tëj Amérique l'Amérique c'est pour les Américains wax ngeen bëgg lan ngeen bëgg yéen doomu yàqu tey jël yi avion yi seen sëriñ yi seen jabar yi nappaaje bu réew ngeen daw du ngeen xeexal réew ma de waaye lu fa nekk bëgg ngeen ci wàll waaye bu buy tàkk ngeen dañ ko fal pour américain d'abord faluñu ko pour sénégalais dafa immigré faluñu ko pour àdduna ba fa dem duuti xaalis ñooñu na leen génn Amérique dàq leen ñoom ñëpp d'accord naa ci parce ngi nii xool ña fay xëccoo ñëpp bëgg a ñibbi bu ëllëgee bu ama bu seddee ñëpp ñëwaat loolu loolu loolu loolu ndax nga bëggee léegi yow nga nekk ci am moo xam ne da bëgg lépp lu fa baax nga am ci wàll bëggoo ko la ŋàññi bëggoo def mur boo xam ne doo fa dugg ko ñi leen Trump dafa raciste bu Amérique tàkkee ba ñuy xeex ñoom duñu xeex de américain yi taxoon Trump ne bu fi kenn ñëw ñoom lay fexe ba ñu am liggéey ñoom ñooy faq ay seen jël seen fetal di xeex Ukraine gee ñuy wax tey mi ngi ni nekkul ci jàmm ña ngay xeex ña fa demoon duut xaalis di jàng ak ñëpp ña ngay daw génn dëkk ba ku fa des ña fa dëkk ñoo fa toog di xeex buy dee di am ñooy dee bu victoire di am ñoo koy am bu ñu paree nag ba paree nag tabaxaat seen réew ba mu baax ña dawoon ñoo taxaw dugg ci dëkk bëgg a jëriñu loolu loolu loolu est-ce que yéen nangu ngeen ko man d'accord mu du dëgg ñaan Trump dafa raciste rek ma leen moo yee raciste parce que ay lapp ta ngeen yéen yéen yéen yéen seen i ngeen yooyu seen i bagage fu tooy toog ay weñ ngeen dem leen ñibbi Sénégal toog parce que xeex du am fenn ba ngeen yi la Macky Sall moo a raciste toog bu ngeen génnee manifester mu duma leen gaz leen jàpp ci kaso bi tëj kooku kay kooku kooku moo gën a raciste Donald Trump te xeexu leen ko ki raciste mooy mi ngi ci réew mi yor seen réew li ngeen seen alal ki leen ko xañ téye ko ku yëngu mu dugal tëj ci kaso bi kooku Donald Trump ko gën taw xeexu leen ko ngeen jàpp Donald Trump yàq dara bi yàq ko lu ne yàq ndax média yi CNN ki média yi les médias sataniques yi ngeen seetaan nga xam ne man bàyyi naa leen xool bu yàgg ba ma xam ne ñii ay complot lañ ci ngeen sëgg rek ñu leen xol rek di leen nax rek leen induire en leen nax ngeen am ay jugement ak xalaat yu bon ci ñoo xam ne ñooñu ngeen waroon a jàppale ku mel ne Donald Trump ak Vladimir Poutine naan dañoo raciste mais Macky Sall dañoo raciste ñëpp ndax racisme mu ngeen Sénégal yéen racisme mooy dëkk bi nga dëkk mënoo faa nekk yow ku mën a dëkk ci dëkk bi nga nekk waaye waaye loo joo raciste yéen sénégalais yi fu ñu leen ras fu leen bundu xataale ci àdduna bi rek jaadu na leen jooy bu leen ko jooy fenn ndax ku mënta dëkk ci sam réew waaye waaye boo demee ci dëkku di ko fa kaas waaye waaye boo ko defoon ci sa dëkk dee li ñu dal ci suñu réew ñun ñëpp ba mënuñu faa nekk bu ñu nangu dee Macky ñu wala ñoo xam ne ñoom bu dee amee ñooy pare ah. bu waree am ukrainien ñooy dee ah russe boo bu dee amee russe russe ñooy dee yéen sénégalais moom du ngeen dee fenn yéen fu bal tàkkee ngeen dugg ci ronal yi su bal seddee ngeen gën a taxaw di saale ka naxaate nii rek ngeen fi nekk nii te du leen ko wax daw rek baraw daw la ñeen daw làqatu baraw jàng lu leen xeex li ñeen mooy daw baraw làqatu rek mucc fexeel ba mucc rek fexeel mucc loolu nag am na foo xam ne war ngaa mën a daw bu mucc waaye am na foo xam ne boo fa dawee rek lâche nga tu es un traître tu as trahi am fa du fépp la ñuy daw pour mucc dafa foo xam ne kenn du daw da ngay jaamaarloo taxaw boo waxee ñoom njëriñ loo fekkee da ngay seetli koo xam ne dundam yëpp yaakaar na lépp lu mu war a def ci njëriñu boppam la war a dem xaatu kenn de boppam képp nee na moom lépp lu def da caa a gis njëriñam bu ko ci gisul du ko def day xool bii mentalité am réew bu amee nit ñu mel nii réew ma fu mu jëm amu kenn ko am yéwén ci xolam laabam ak yéene moromam loolu day laaj xeex boo xam ne moom ni koy def wóor na ko ne lii mu yéen a aw dëkkandoo mën naa am du ko fekk moom wala bu njëriñ bi tàbbi dana ko fekk ci biir waaye mu ne sama yónne ko dama koy xeex donte du ma fi fekk danaa ko xeex ngir ñii ñëw ëllëg yéen googu moo nekkul ci benn sénégalais loolu tubaab ko am sénégalais xamul loolu boppam rek bopp sama rek égoïste boo paree rek boo wax ñoo du teranga ceeb mooy li gën a yomb ci àdduna bi ceeb du teranga ñëpp bokk ñëpp bu ñu fi fekkul tamit dana fi fekk suñu ay doom ak suñu sët ñu xeexal leen ba bu ëllëgee seen àdduna mën a yoon loolu moo teraanga waaye ceeb bii nga xam ne lépp kenn mënu wax ñaan daaw ba rew ci ngóore la bokk ni day moytu moytu musiba yi fexe ba rëcc dégg nga maam ndax ni du xaru am na ci yoo xam ne ay baaxul waaw jàmm gën xaar yàlla waaw jël seen kër yëpp tu gën ki xaar yàlla ki ay <coughs> yooyu xam nga man yooyu bu la Eya fuzo ngui ayam barek to kuakene ayam barek mudu bayama man garpila man sama mamli man cedula man girila man fina boku man sama bayi, mana mana mana, man lapor lapo tiket lapo lami nyuri ket ay seko lami nyuri bu bal binan bu balu binan tip do do do xamé do ñinga wax do xam fu ñaat ne fit fit go dag dugu sen tay yek suuf lali darat lami nyuri rew mu am nakal naka la naka ko kota mu ñu ko tabax ci kom kom mu ñu ko tabax ci lenn lu mucc lu dul nit ñi taxaw jël sen bakkan bi may ko rew mi ñu dafa leen service militaire formé leen ci lan mooy patriotisme lan mooy citoyenneté lan mooy bëgg sa ak lan la pare pour def ko pour réew mi mucc pour Sénégal mucc loola ñu jàngal ko ñëpp ñeneen nekk ay civil dem ñu ñëw bokk ci dooleel armée bi dooleel gendarmerie bi police bi ak bi pour que ñu xeex pour réew mi mën a nasax réew mi bañ a ci ay loxo yoo xam ne bu ko tàbbee ay jaam ñu doon adduna bi ñuy dem ñëpp ci loolu ñu xalaat waaye réew moo xam ne foo li fa nekk ci ay kasu rajo ki màggala ki canta ki daayiraay ki ngéntee ki lamba <clears throat> ki concert wàllu sekk ki coupe yoo xam ne football ki yu kenn xamul yoo xam ne aji du seen adduna yëpp seen temps ak ni mu chéré lépp ci caaxaan ak pecc ak caaxaan képp ci lañ koy at at 24 sur 24 24 heures sur 24 365 jours sur 365 jours rebelut rebelut màggal gàmmu cant tabaxi juma daayira way euh, musique euh, lamb euh, concert football ci yooyu rek ci la ñuy tourné ci loolu la ñuy tourné li yokk Amérique ngi kenn ku ne yaa ngi daa sa fanaan la nga koy xeeb di ko yokk di ko gën a ñawal ndax àdduna dafa tëradi te kenn xamul mën nañoo xëy song la sa paaka ba nga yor sa jaasi bi ak ba yaa ngi koy namm di ko fomp def ci bali booy tëdd nga gën a yokk ndax mën nañ laa bett yooyu yëpp nga di ko ok ñooy nit ñi waaye doomi làppatoo ñoom foo leen fekk tëñëx nag sëñ bi ñu dugg ci benn kaar nag daal koy tëñëx tëñëx tëñëx koy jox loxo bi daal di koy jox loxo daal kontaan waaw da ngay seet fii ku sànni woon bomb fu ñu fu ñu jëm fan fan la ñuy jëm ñii ay nit lañ dama da ngay seetli kaafu petax ñu jóge fa sëñ bi mën a ko ji nag mel na koy xaar yàlla nag toog na ko ji mel na seko xaalis yi fecc ku ñëw doo dóori dëgg dëgg dëgg dëgg doo tëng ko sëñ bi def mu génne baaraam mu génne loxo ba ca porox ndool ma dem keneen ñëw nga xool leen nga xam ne àdduna yow ah ilaha illallah cay fu ñu jëm fu ñu fu ñu jëm fu ñu seetli fan la ñu jëm dama kenn du ko wax de boo wax ñu ne ma waaw moo fi saaga suñu kilifa diine yi mooy saaga mag ñi ñoom ñene ñoom tamit ay ñoom ñooñu ay moo tax am na ko wax ma yahudi ashkanaz les faux les faux juifs là les faux francs-maçons là ñu ngi Sénégal xanaa xamul ñu ci biir tarixe yi mooy taalibe yi mooy lapato yi ñu tamit complot rek ñoom c'est des comploteurs c'est des ñoom ñoom ñoom ak ashkanaz law ñu ngi fépp ñi ñoom àdduna bi saaga da ñoom ngay waxal de waaye ñoom duñ ko nangu dañ la <laughs> ñi fi seen dil yi teg mafia ashkanaz bi ñuy ñoom la ñuy mbubboo seen di mi génn barki démb di méngale góor jigéen ak catholique yeeg yu kenn def naa ci benn audio ba waaye ñoom ñëpp gis na ñoom foofu lañu mujj bo wax ñu ne ñooy mom moom moom Mouhamed Sall lool waaw salafi si dañoo bëgg yaax yàq liggéeyu mag ñi tarixa diine yi lañu bëgg yaax ak sala xaw ma lan salafi si gëlë gis nga non la ñu def de ta gis ko moom mafia la de moom dem na ba légui mom goor jigéen moom mi doon xass salafi si moom moomee moom Mouhamed Lamine Sall momé mooy dëggal goor jigéen fi légui da nga xoli ala ala ala salafi si loolu loolu bañ bañ bañ tamit nga xamna ne ay jullit lañu ñoom xanaa ay goor jigéen ma ngi a bëgg a déggoo ki ki ñi ay salaf lañu lañu wax ne ñeena ne xaw ma waa tasawuf lañu d'accord li leen wuute lu ndaw la ay kurel rek lañu wuute kurel man lii laa waaye yëpp ay boo demee yow mi xas salafis yi yow Mouhamed Lamine Sall boo mënee muñal góor loo mënta muñal ab salafis nga xam ne kon ñun fu ñu jëm ji suñu diine ji moo koy yàqu lépp maanaam maanaam góor jigéen yi ñuy wax góor yi ñuy wax ji ko yàqu te kenn liggéeyu kenn li yàqu ki diine ji moo gën a garaaw fuuf li yàqu ki franc-maçon yi góor jigéen te kenn du ko li gën a garaaw mooy diine ji yàqu <laughs> moo gën a garaaw góor jigéen gi ñuy wax moo gën a garaaw li yàq ci diine moo gën a garaaw góor jigéen moo gën a garaaw franc-maçonnerie ji ñu tiim ko ñu ñëpp di gën a garaaw dëgg la loolu mooy ndax diine ju moo tax ñuy xeex tey góor jigéen diina ju yàqu moo tax tey ñuy xeex le lobby maçonnique diina ju yàqu moo tax tey réew mi ndóol diina ju yàqu moo tax koo seqal mu war la diina ju yàqu moo tax réew mi drogue ak cocaïne ak sàcc ak lépp fan diina ju yàqu moo tax politique bi doxul lépp diina ju yàqu tax ndax diina def diina benn jubluwaay la am mooy defal jikko li ñuy wax ci islam bi yëpp defal nit dong la defal jikko te jikko yi bu baaxoon góor jigéen du fi am bu jikko yi baxul li ñu son yi duñu son kon diina ji mo jikko diina ji mo baxul suñu diina ji mo baxul ñàkk bax gi mo bax na motax tax jigen gi law ciati gi bari yenn sëriñ yeen sëriñ yi jàpp yenn taalibe yàlla yi def leen ay ay lapato di leen dundé wul leen ba ñu nek ay jamm tak takk buum seen bab di leen dundal di ñu joxe ad ñuy bay tole di leen foqal ak di garder bu kër rek lal basang yek duy ci yàlla japp yi ñom japp leen jamm tak leen jamm loolu diina ji yàqu la loolu amul fenn nit nit yàlla kenn ko tap jamm ñom dañoo japp ni ñu jaam def leen ay taalibe di lek seen alal jël seen doom sey ñoy lal basang yi ñoy duy satala yi ñoy tej bunti yi ñoy ubbi ñoy yan auto yi ñoy raxas oto yi ñoy def lepp ñoy ay lapato lañ loolu du diine amul diine amut diine diine moom kenn du lekk naqo jàmbur amut ji moo tax yëpp am moo tax ki waaw ki faaw ki naan mën mënumaa jàpp noppi mbooloo topp ko waaw nga ne diine nga ko toppee te ki nga topp ki diinam nee julli mënumaa jàpp damay jéem donc ak ñàkk a bëgg ko loolu loolu loolu di la ci nga yor loolu loolu moo gën a wóor loolu loolu yàqu-yàqu yooyu nag moo indi lii góor jigéen nga yi ñuy wax yëpp loolu loolu loolu diina yàqu kenn du wax ki wax loolu Serigne Touba waxul loolu moom ki day daw dem Serigne Touba moom Serigne Touba moom waxul loolu moom bindu loolu bu ku ko wax ku nekk Alaaji Maalik Alaaji loolu moom loolu mu wax moom fan la ko moom kan moo ko loolu Serigne Touba waxu ko jàngalewu ko Seydi Alaaji Maalik man mi maay sa mag ni nga man ngay wóolu amul diine ju yàqu mooy ni loolu voilà kon yàq-yàq yu bari na mu bëggoon ngeen yeewu xam ni àdduna bi dox lu ci nekk bu ngeen ko déggee bu ne tëll ngeen xam tëll ji lan moo ko sabab bu leen dégg tëll ji rek waaye da ngeen di xool la ca ginnaaw tëll ji ndax tëll ju ngeen dégg rek force moo ko def tëll yéen nag force bi nekk ci suuf nga xam ne mooy pression bi nga xam ne moo sabab tëll ja tëll ja ngeen di dégg dégg-dégg ba ngeen di am émotion ba dégg-dégg ba tëll ja ngeen di dégg waaye bomb bi nga xam ne moo ne tëll dal bomb bi ba ngeen dégg tëll bomb ji yéen teel a moom ngeen di atte waaye force ba nekk ca ba produit bës ak la dawal ba mu daana ba kii yéen loolu da koy umpale la nekk ca ginnaaw teel a ko xam bu ngeen ne ngeen xam lan mooy force ba ko puus ba mu ne teel waaye moo nekk ca ginnaawam puus ko ba mu ne teel loolu ngeen war a lijjanti ba xam ko loolu nga xamee kenn du leen kon ñu déglu ni pour l'instant Donald euh, Vladimir Poutine ñu ngi ne napp leen xoox leen ba ñu jooy mu leen waa kaay toog ñu wax stratégie la hmm. da nga boo bëggee dara da ngay dóor tépp mbéj ba noppi ñu toog waxtaan waaw il est en position de force li mu bëgg mooy am wala jaamu du am par force dañ koy fekk ci li bëgg wala jaamu du fu mu neex suñ càmbaay ko waxoon ñu ne way ko arab ko wax ñu ne ko lu wax mu ne ku bëgg dara da ngay da ngay ñemee xeex ñu ne ko dul xeex du am dara àddina bi lépp xeex la mu ne ah way ko arab wallahi way ko arab mu am xam-xam mu ne ma ah waaw way ko arab nee na kii kii xeex mooy kii am dara nee na ku dul xeex yaa fu du am dara mu ne ko wallahi wax dëgg doo entraîne bu comprendre loolu bu baax ba xeex rek boo bëgg dara da cokkaas am doole bu ñuy wax di waxe nga doon mbéj boo xasee ba mbéj moom moo leen dana atti am nga mbéj am nga benn am nga benn mbéj waaw ñu toog na waxtaan nag lu tax nga mbéj ko moom lii moom laa fekk yow am jël nga avance Poutine noonu la leen def jël na avance moom taxaw di xaar bu ñu bu leneen nag pour ñu a jubóo lii bu loolu mënut am ma jóg mbéjaat rek par force waaw ndax lañ def Mali ah. dugg Mali naan terrorisme ak yu kenn xamul wax a wax seen waxi caaxaan Mali yee gis nañ ñoom terrorisme ñoo ko fi indi doxaluñu dëgg yéen ay caaxaan génn ba nangu réew ma léegi ñun xam nañ ñu xeexee terrorisme yëpp daal léegi na dakk dem leen seen yoon waxuñu malien seen France na ne wax a ne ay force Mali erreur mu def nag mooy ñëkk ba mu ne day dem malien yi ne ah waa xanaa ba da dem da ñu ko yëgal yéen bi ngeen fi dugg fi ñu ne yéen d'accord daal di signé ngeen da ngeen ñu jàppale si ngeen tey ñëg ne da ngeen dem seen yoon parce que ñun am nañu droit nag ak sañ-sañ nag xool ku ñu neex ñu ànd ak moom ñoom suñu bopp nag ni ñu ànd ak yéen noonu lañu amee droit ànd ak Sénégal am nañu droit ànd ak Russie am nañu droit ànd ak Amérique ku ñu neex ñu ànd ak moom pour mu jàppale ñu ci xeex bi ñuy xeex yéen dañoo amoon droit ànd ak yéen léegi nag ñun dañoo fas yéene ànd ak Russie tamit pour mu ñu ci xeex terrorisme ci réew mi ndeke loolu neexul France xam naa ci lu ne ñee faale wuñ ko Mali yépp taxaw ànd ak Assimi Goïta moo tax am solo li wax yépp yéen ñëpp tey bi ngeen taxaw ngeen taxaw ànd ak Ousmane Sonko Macky Sall di fanaan waaye ñàkk mbooloo bu takku moo tax Macky nekk fi ba léegi di layam layam waaye Mali gi nga xam ne ñëpp jóg taxaw ànd ak Assimi Goïta Emmanuel eh, Macron takk na ay bagages am génn dëkk ba mu ne ko waa kon ñun dañuy dem suñu yoon mu ne ko déet bala ngeen dem xanaa da ngeen yëgoo da ngeen tàggoo ñun kat ñoo àndoon signé xanaa bu ngeen dem da ngeen ñu ne kat ñun dañoo bëgg a bàyyi waaye jékki-jékki xëy rek laaju leen ñu waxu leen ñun taal seen rajo ne da ngeen di génn Mali loolu nag du rafetul nag ndax bi ngeen dugg dañoo waxtaanoon kon bu ngeen dem woon ngeen ñu ko waxi waaye comme yëgalu leen ñu ko nag ah waa baax na ñun daal daañu ja kon baax na li ngeen li ngeen décidé ne da ngeen dem baax na amuñu lu ñu ci wax ñun kon ñun daal dégg nañ ko dégg nañ ko Mali dañoo muus di xam ñoom yàkkam nañu français yi génn waaye mënuñu leen dàq waaye ba France comme France ne day dem ñu dugg Assimi Goïta daal di tëj buntam moom fecc paakar ñu ko paakar ñu ko yu neex ne ndokk dama a a a moom kenn waxatu ne day dem moom kay dem moom te ba sama xalaat da ngaa jékki dem du yow nag yaay wax nag kañ dem nag fii nag Mali nag moom moo ko de fii ay suñu da kay daa fi mi ñoo ko moom ñun ñoo la xajoon ne la ka jàppale nga gedd na da ngay dem te ba ngay dem yëgaloo ñu tàggoo da nga ñëw dañoo jékki-jékki xëy tab tàlloo bi yëgaloo ko ñëpp mu jëfin bu ñaaw lu fi fanaan sans délai ñu mu gën a gaawee na ngeen ñu abal Mali comme da ngay dem amatul app juróom benn weer kenn du leen ko may réew mi moomu leen ko yéen France ñun ñoo ko moom jibiti fa ñu nekk di layam layam di yëgatee ko wax Vladimir Poutine moom xam nga stratégie la mu ne xaaral France mi Emmanuel Macron dafa may fontoo xaar daal di ne bëri dugg Ukraine waaye Emmanuel Macron talatul Mali fi mu toll nii <laughs> ndax moom dafa circulé moom bëgg naa nekk fu ne France amatul boobu doole mënatul nekk fu ne France amatul doole amul xaalis boo bu wax nga ne pat def na Poutine rek bañ boole wax waaye bu bés ba jotee ba ne jaxeet na jaxeet ba taxaw xool gauche xool droite wala da nga xam ne lépp dëgg waaye Macron keneen ko dégg di wax ay Mali ak Guinée ki yooyu dégg ay Poutine mooy nee na da ngeen di font naan ay centre Afrique ak ay Mali léegi xaaral ma ubbi leen nag une crise majeure adduna bi yëpp caméra yeeg télévision yi France 24 ak RFI dégg ñoo waxi Mali de léegi ñoom ñëpp Ukraine bu ma defee nag comme ñoom ñëpp ñu Ukraine Mali yooyu ñoom ñu ngi préparé wu ñu ngi daaj bu baax ñoom fi noonu ak force Russie ñoom ñu ngi au Mali pendant que ñoom France Emmanuel Macron talatu leen ña nga braqué ak ñoom Jean-Yves Le Drian ñoom ñëpp a ngi Ukraine Vladimir Poutine mi nga xam ay mi ngi dugal ay nitam Mali centre Afrique ña ngi daaj bu baax baax Euh, war gis nga kenn mësta gis lu mel ni Poutine non Poutine benn affaire la dana leen dof loo ñoom ñëpp du boole wax moo tax crise bi Assimi Goïta la gën a arrangé ni Ukraine defar waat bu baax baax fagaro bu baax a baax fas yéene dàq France ñu génn foofu yëpp acc Macky moom ma lambar lambar moom di lu xew moom moom moom moom bisa ma ngi ci bis bisa ma ngi ci bis kenn gis lu mel ni boo da toog di xool enjeu di xool daal di xool di xool di xool di xool événement yi di leen croiser waaye da ngay toog ba yàgg xam ne yàlla daal yàlla mooy xakim dëgg dëgg dëgg yàlla daal moo xam naa daal ordinateur yàlla bi daal mooy ordinateur bi gën a puissant rek xam naa daal interconnexion yeeg enjeu yi ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy lënkalantee te da nga maam dara du mooy dara du mooy dara du mooy nga xam ne moos da nga maam suñu xeex bi nga xam ne dañ ko yàgg xeex sonn ci lool nii dong la mën a demee nii dong la mën a demee mën demee neen ndax dañ ci sonn lool wàjji wàjji sonn ci lool wàjji rek saay saay tëbaay rek buntu boo ubbi ubbi beneen rek buntu boo tëj beneen rek saay saay lool nekk loolu lépp Vladimir Poutine bi parti boo léegi ci wax rek ji waaye kàccoo dëgg dëgg dëgg dëgg te bëri doole te mën yëfu saay saay dëgg dëgg commencé gis mel Emmanuel Macron moom dafa jeex tàkk fi mu toll gaa yi nañu ko xaandoo lekk ah lu may lekk nelawatuma fi mu toll yuuxu fa <laughs> ah, <laughs> ah tiit di fi mu toll loo ci man Vladimir Poutine moom yëngu moom moom taay ko moom moom judoka la karaateka la moom taay ko wënde judo moom yooyu lay def moom du ci boole force tranquille la moom du ci boole wax yaa daa woo Sarkozy yeeg woo Sarkozy woo François Hollande ne ah da leen demandé conseil maa ngi dégg Doudou Wade moom it comme Doudou bi nga xam Doudou Wade priya bu PDS maa ngi ko dégg waan ah rapprochement PDS ak affaire waaw loolu moom du jaadu Abdoulaye Wade ko wax maa ngi ko déglu moom waaw journaliste bi ne ko waaw yéen <laughs> waaw yéen rapprochement bi moom loolu moom ndax waa Sénégal yi nag mu ne ah famille libérale est-ce que amuñu droit rapproché wu Poutine euh, Macron noonu bi mu ah, demee ba jaaxle ci problème Ukraine bi dafa woo Sarkozy rek Hollande di leen laaj xalaatam kon kay Macky Sall moom tamit war naa mën a laaj Abdoulaye Wade xalaatam wala boog ñu diisoo xool xool Doudou Wade xool xool yi fen ak ak parallélisme yu garaaw yi muy def Doudou Wade mu ne ko waaw waaye Sarkozy de ba ko Macron woowee ne ko xawma lan loo xalaat ne ko xee xee ji waaye xam naa ko de waa ji xam naa ko de man sama tas ak moom de waaye dama dama dañoo ma naan ko Poutine ne teg di ma xool rek fixé ma ma dugal bopp rek nga bipp sa buum jàpp ko ci piccum na mu ne ma pare nga sax mu ne ma pare nga ne ma gis nga yow président France mu nag am ceeli laa ceeli ceeli gis nga ba ma moytuwul sama benn ci Poutine mu ne ci picc picc goo xam ne sa dëkk bi France bi ngay diriger am piccum xaax la la am ceeli laa gis nga bu ma la ko bu ma la ko ngàddee <laughs> na ma ñàkk xepp <laughs> jóg jaaga jaaga génn fekk journaliste yi toog ci salle bi di ma xaar ma ëff ma ëff micro bi pour leen rendre compte pour leen wax li ma jëlee ci sama waxtaan Poutine waaye nee na may miir nee na ma ne waaw man fu ma nekk nii fu ma doon xamatuma fi ma ne Macron ne ko ah mu ne ko wallaay man moytu ko de bu xeexee moom de bu ko dugg de xamal bu baax li nga koy wax la yàlla ne woon yonte ba xaw ma yonte ba muy dem sa defar yàlla na ko boo demee na nga wax moom na nga wax ak moom ci njëkk teraanga de yaa nekk ci dëgg de waaye boo demee firaaw ne moomee borom doole la de borom nguur la na nga ko jox war moom jox ko gëddëm tam wax ak moom ci njëkk teraanga na nga ne kucc nag amul yar boo ko deful bu dalee sa ko da nga xam ne lépp dëgg la <laughs> waaye waaye Macron semaine bi yëpp Macron nelawul Sarko ne ko man nag li ma xam wax naa ko de bu ma waat naan ma Macron génnee daal di woo yéen ñëpp nag na ngeen a gaaw takk sareet yi na takk sareet yi tekki bëri ko ndox yi te dem duyu ndox nu gën a gaaw te ñëw fay lakk gi <laughs> Macky ne ko lakk gi mu ne ko nu ñu koy fay mu ne ko communiqué gaaw leen def leen communiqué seen yow rapidement communiqué te ànd ak ñun Macky daal di jaagale saaka bi duufi moom it jaagal <laughs> li li waaye di uti ci àdduna te uti woo doole ñàkk nga ko doole rek wóor kenn damay toog di ree damay damay xam lu bari ne pat di ree sama jabar waajo loo ree ma ne ko wallaay boo xamal li ma ree damaa xam ne wuy yi saay sa bandi bandi kacapaa yi nekk te woo bandi bandee bàyyi nekk nekk Poutine mu ngi bandi ñoom kenn mosut a gis lu mel ni la ilaha illallah te moom reetaan loo naa leen xam naa ree ngeen ba sonn rek ree ngeen yéen ñëpp ba sonn tey waa da ciy baax léeg-léeg wala waagi nag boo jékkoo del baale waagi nag nag ma ne ko waaw wax nga dëgg de nag moom ni nañu woote nag doo jékko rek nag daal leen nag daal leen bóom nag ñu jóge fi nag comme ne nañ léegi nag dañoo a waxtaan waaw de dama koo fa rek delloo delloo si wu ma de te nelawu maag benn bët bi doog laa gëm benn bët baa ngi xippi kenn mos a lu mel ni da parlement ba Emmanuel Macron président Suisse baa nga ko naka waaw waaw na ko waaw mën daal mën a xam man xam peex waaw léegi waaw Poutine ne Macron man daal wax ji bari ji man mënuma ko ma bëgg wax naa ko ñëw nga fii seet ma ma toog ma toog ma bi nga ñëwee di ma seet si Russie yow Poutine yow Macron ma toogul ñaari semaine bi nga ñëwee di wax ak man ci lii saal ba ma teg taabal ji taabal dafa gudd dama toog toog ci benn pegg bi ki nga xam ne moo dugal tam boole laag moom tam bokk ci sama protocole kooku tubay lay sol waaye keroog bi mu ñëwee di la indi dama ko sol jupe laa <laughs> maanaam protocole bi nga xam ne dugal Macron ci salle bi Poutine toog da ko sollo jupe jupe la ko sollo te da ko sumi pantalon sol jupe daf toroxal yi bu ko toroxal Emmanuel Macron bu ko xamal sa jabar ji nga jilif mooy muy muy sa jabar ji góor la travesti la maanaam góor la boo jigéen waaye du jigéen góor la Jean Michel Jean Jean Jean Michel Jean Michel xaw ma naka Jean Michel Touré sa jabar ji ngay sa jabar France yi naan tubaab yëpp yaakaar ne góor di travesti la comme yéen ci mbon ngeen di dox ak homosexualité ak travesti LGBT comme yéen doon ngeen di dox moo tax bi ma seesee ma boole la <laughs> ne gis ngeen ko mais xam lu muy tekki kooku du sol jupe de jour boobu moo ko sol jupe pour xamal Macron ne ko te li ngeen dama tubaab yi français yi sa jabar góor jigéen boobu nga yore mu nekk ci palais bi te ma xam ko bu am enquête yi am renseignement yi waa KGB xam lépp booba moytuwul siiwal te ci élection nga jëm te bu français yoo xam ne da nga leen jigéen la te góor la traversé la bu ma ko génnee ba eh, ba mu jàll ci média doo faluwaat moo tax bi ñëwee nag loolu koy wax de waaye dafa koy julli nag moo tax mu boole ko ki nga xam ne moo ko dugal ci salle bi mu sol ko ko solal jupp <laughs> xam nga dafa am ay langage codé dafa am wax wax wax yoo xam ne les initiés moo tax diplomatie ak défense lépp luy stratégie de défense ak diplomatie loolu loolu am njàng à part la du <laughs> lépp du wax li dañ koy julli dañ <laughs> gis nga Macron bi mu duggee dafa jàpp ñaari loxo dafa jàpp gis nga gis nga Macky Sall bu gisee bu gisee Wladimir bu gisee Macron gis nga ni mu jàppee ñaari loxo yi mel na ab ab almuda mel na ab taalibe ci kanam kanam Macron keroog bu ngeen seetloo image yi bi Macron duggee ci salle bi bi ko bi ko góor gi solo jupe bi dugalee gis nga ni Macron taxawee mel na ku gis yàlla dana muuf toog <laughs> kenn ku nekk sa bàyyi Macron moom mooy bàyyi Macky Sall waaye waaye Poutine mooy bàyyi Macron <laughs> kenn mos ta gis ñu bëri damay toog di leen xool damay ree ma xam ne daal wallahi yàlla moo bari yàlla yàlla moo bari kumpa maa xam ne li xew ci àdduna bi yëpp bu ko àdduna bi xamal àdduna bi kenn du fanaan compromis yi am ci am ci àdduna beeg langage yeeg coli seen colin yeeg ko askan bu yàgg kenn di fanaan waaye yàlla daf leen def loolu lépp nekk kumpa bi doon ci ñoom kumpa coow dina kur am benn journaliste bu porté benn bu def enquête bu mucc ayib ci jamono Macron da jamono Macron góor la a traversé la dafa soppi awraam coow kur France KGB daal ci def ay enquête Poutine

parce que li xew ci àdduna bi xamu leen ci dara dara dara ba dara ba la jeex mu dama yërëm dafa dama leen di mere vidéo yëpp lañu censuré ndaw journaliste bi def enquête bi ci wàllu jabaru jabaru Emmanuel Macron bi yi du génn fenn yi di ko enquête police bundu xataal gi ñu na kuru ndaw suñu xooxatal ko dañ koy porté plainte du mujj <laughs> loolu xam ngeen xam leen am na xëy na ñenn ci ñu ko xam mais dossier bu la ndox dañu ko sensibiliser du génn fenn loolu moo tax ñu bëgg a tëj RT RT France bi nga la te dossier te Sputnik bi ñu bëgg a tëj ak RT yëpp <laughs> xam parce dafa nekk seen biir loge mu bokk ak ñoom te bokkul ak ñoom ay pas-pas bokkul ak ñoom gëmukaay moo tax mu xam leen day xam lépp Non, non, non, non, non, non non non non non non chut chut non, non, non, non, non, non, non, non, non, stratégie xam Poutine c'est un grand champion en jeu d'échec échec c'est un grand champion en échec non, non, non, échec xam les relations internationales xam les rapports de force les enjeux gis acteurs non, les acteurs majeurs non, play non, non, So, comprendre non, non, non, non, non, non, non, rek non, non, après c'est un théâtre à ciel ouvert

yan bomb la Poutine di lancer fan ak ku mu koy lancé kat bomb nucléaire dafa garaaw moom ya français yi mais yaa européen ñoy fen de Poutine bomb yi mu am du pour Ukraine Poutine bomb yi mu am pour États-Unis la bomb yi mu am ñom sen bomb yi du sax pour Europe parce que Europe dafa jege ci ñom ñom bi bomb yi ñoy du pour bomb yi c'est des c'est des missiles à longue portée sol air ak air air ils ont des missiles sol air missiles yo xamne ci suuf la jógee naaw ak missiles yo xamne ci jaww la jógee naaw ak des missiles yo xamne c'est des c'est des torpilles en sous-marin dañu am dañu am la maîtrise de l'espace aérien l'espace terrestre et l'espace marin ça ce sont des puissances globales mu jékki-jékki jóg parce que dañu natt lépp lépp lu danger dañ ko circonscrire dañoo fexe ba tout ce qui est danger à travers donc l' espace ñu maîtrise ko il maîtrise la guerre navale la guerre terrestre et la guerre aérienne da nga ciy nekk un mastodonte caaxal nañu ça c' est pas pour les lapoto non non état du caaxaan état puissance du caaxaan puissance du caaxaan doole du caaxaan du yëf lapoto naan ñaanal ak takkale li ak seen oto yi yow seen bi ñaan naag ñaanal li ak takkale yooyu yéen xamu leen lu xew <laughs> wallahi xamu leen lu xew léegi nag dañu bëgg intox bëgg yàq deram ak yooyu mais Poutine soxlawul bomb yooyu ñu wax yëpp pour xookatal la bataille de l'opinion parce que bu opinion bi su ànd ak ñoom dañu gagné bi ñoom parce que toute guerre est d'abord une guerre de communication pour avoir l'opinion publique avec soi c'est important lépp loo bari bari doole loo am am doole ci àdduna bi boo mënee ñëpp tamit te guerre bi ngay mëne fexe ko au bi ngay njëkk a mooy guerre bi nga xam ne guerre boobu mooy première guerre bi ñu ko am muy la guerre de la communication pour la bataille de l'opinion nga fexe ba askan wi ëpp ci àdduna bi ànd ak yow ci xeex bi ngay xeex nga jàpp ne li ngay xeex mooy dëgg ndax mooy seen intérêt mooy la guerre de l'opinion mooy la guerre médiatique moom ngay njëkk a gagné léegi ñoom nag loolu la ñu xam moo tax ñu bëgg a wëlbati mbir yi bëgg a jël chaîne russe yi tëj ko ne duñu fi waxee parce que xam nañ ne lii mënuñu koo lay ñoom mënuñu koo layal ndax ñoom dañoo yàgg def lu ñu mel te Poutine xam ne lépp te li Poutine xam bu ko génnee musiba am te Poutine li ñuy xeex dëgg la parce que moom Poutine du bàyyi mukk ñu yëg ci kawam wër ndomba ko dégg nga maam daasaan la pour rey ko du ko def day xeex te am na ay lay toog na Poutine mos lañu ko dégg mu wax 5 minutes yu mat def na vidéo boo xam ne mat na 25 minutes d'expliquer ay enjeux yoo xam ne musu ko def dafa am lu tax kon lii du ko ñor la c'est une question de quitte ou double question de double ak dee xam na bu baax li muy def léegi nag ñoom la bëgg ñu wax moo tax ñu bëgg ñu bëgg a tëj robinet yëpp nga xam ne ñoom dañooy fen di fen rek di fen di fen pour di leen nax pour nax leen nax leen nax ñëpp naan ma ngay génne bomb yàq ma bomb bomb bomb yoo xam ne boo ko bësee en 5 minutes mu daw 5000 kilomètres 5 minutes 1000 kilomètres la bomb bi daw par minute 1000 kilomètres par minute bomb bi 1000 kilomètres benn minute bu ne 1000 kilomètres la bomb bi daw bomb boobu te yow Ukraine mi ngi yaag Ukraine a tàqaloo yaag Ukraine yéen a tàqaloo bomb yooyu foo ko jëmee bomb yi mu am kii génne na ko yi ngeen gis mu génne ko démb kay moom barki démb semaine passée bomb yooyu ngay laam mooy bomb à courte portée yi mooy ay roquette loolu moom ay roquette laaj ay yi kenn xamul ak dugal armée bi moom defagul dara Poutine dafa génn moom di doxantu jant bi dafa fenk suba gi rek mu génn boot ay loxoom di doxantu moom defagul dara moom da doon doxantu di xool ba xam moom da doon doxantu di visiter koñ bi <laughs> defagul dara ñu bëgg a tuumaal ko nan day génne bomb yi rek di jéem a surenchérir pour lan pour tiital askan ak opinion publique internationale bi lañ bëgg a tiital ils font de ce qu'on appelle la surenchère c'est des techniques en communication pour gagner la bataille de l'opinion moo tax ñoom ñooy wax kenn ku ne ñoom génn wax jëfru soog a àgg suuf parce que jeex na tàkk Poutine dootu leen may dara par force àdduna bi dañ ko jooyantu jubbanti teg ko ci dëgg dégg leen discours Vladimir Poutine di ngeen xam ne moom dëgg lay défendre contre le mensonge voilà léeg-léeg ma dégg yéen doomu làpp yi naan waaw yéen a ngi dal ñii yéen a ngi bañ ñi di ànd ak kee tubaab yëpp a yem Poutine mi ngeen di xas ko ma ne dictateur la crée ma ne leen vous n'avez pas compris <coughs> man ànduma ak Poutine ànduma ak kenn en fonction de noir ak blanc ak yooyu man ànduma man yooyu de man dama dépassé ay blanc ak noir ak Afrique Europe man dama nekk ci logique gu euh, ci logique gu xeex boo xam ne day cohérent day stratégique ak ku ko mënti def waaw damay nekk man au cœur des enjeux ba comprendre les enjeux jël position mais je ne prends du ma jël taxawaay position parce que Afrique la wala nit ku ñuul laa ko xonq laa yooyu ma li ma mooy li ñuy xeex ndax dëgg la sama nattukaay mooy dëgg bu tegu ci dëgg bu nekkee ci Poutine nekk man kooku laay àndal sama nattukaay du du ma natt ay mbir ci kaw kii africain la kii ku xonq la kii man lépp lu taxaw loolu mooy sama nattukaay loolu mooy man du ma loolu moom loolu man xool sabab ba la tax ñuy xeex ak la tax coow am dëgg-dëgg lan la loolee lan moo ci jëriñu askan wi askan nag laa wax adduna bi yëpp équilibre bi nga xam ne moo tax adduna bi am équilibre te doole Vladimir Poutine mu taxaw mu nekk un second pôle dafay tax adduna bi dox ci maandu tax ñeneen yoonam yëpp di safara amul dem dikk parce que lii Vladimir Poutine man Arabie Saoudite mënu ko

motax tax ko da ngay dem xoli aya ba nga xamne mo nek ci baqara إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون moom laa ko joxoon ne ko dama xooli verset 62 boobu nga dem xoli aya bob di nga xam kan mo yàlla yéen xamulen yàlla 2 milliards musulman yi nekk ci ko souf amu ci ben musulman bu yàlla jox doole jëm jox Poutine pour mu xexal ko deug mom Poutine ñi nga nan naan du yàlla yahud la ak xaw ma nasaraan la إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى wa saadiina yàlla ko wax ci alquran suratul baqara nga taxaw yow ne yow kilifa la jur sëñ Abbas Sall bay sa baay sëñ Maodo Sall mooy mooy sa maam nga ne yow nitu diine nga imaam nga tudd sa bopp te xamuloo yàlla subhanallah boo waxee wax musiba xamu yàlla parce que xamu yàlla parce que xamu man maa lay xamal nga ne catholique lii catholique yow dafa xam ne catholique ak mooy ba yàlla ne kun aadama wàcc ba léegi ñi ci nekk ñëpp ci islam la ñu nekk amul islam amul ko génn yahud yaa ngi ci biir islam مثلا يا كتب الإسلام سبع يا كتب الإسلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر أنا لقي ني أكتر يوم يوم يوم الله ده ده شدلي ده ده شدلي ngeen nekkal yàlla dafay nekk naan sama doole ji arabi saudi laa koy jox sama doole bi tuuba laa koy jox sama doole bi tiyaawal laa koy jox sama doole bi kër yàlla dafa yàlla ay nit la bind ay nit ne dëgg ngi nii fene ngi nii képp ku nekk ci dëgg di rafet dëgg man yàlla maa lay kàttanal nga nekk way gëm nekk nasaraan nekk yahud nekk sabayen yàlla moo ko ndemee sama wax yàlla ci biir alquran la nekk sootu baax ngeen taxaw fii yaakaar ne yéen vous êtes les musulmans les musulmans yéen a xam ne mooy musulman Adama ak Awa ba léegi képp ku gëm yàlla musulman nga ci musulman yi nga bokk képp ku gëm yàlla ndax diinte mooy nga jàpp ne bokk bokkuñu ci diine gi dafa yàgg inna diina inda allahi islam la yàlla benn diine moo am mooy diine ca Adama ak Awa ba tey jii diine joojoo fi nekk <coughs> te ci la ñëpp génne nag yahud gi ci islam dafa ëmb lépp l'islam dafa yaatu l'islam mooy diina yonent bi yàlla diina bi yàlla mos a maanaam ku mos benn diina fi am mais ay nit la yónni ak génération ñoom la ñu kenn génn islam bi bi kenn mayu ko ki bi moo nekkul ci la moo xam yahud la moo xam tabayan moo xam nasara ku gëm yàlla bu mat la moo xam islam bu manqué mais islam bi kenn boo xasee ba ba gëm yàlla kenn mënut laa génn ci islam bi mu des gëm nga est ce que mat na wala matul est ce que gëm nga doy na wala doyul est ce que gëm nga mottali nga ko ci jëf wala yeneen loolu leneen la waaye boo xasee ba catholique bi gëm yàlla benn yàlla gëm yàlla am na yàlla bi nga gëm bi gëm yéen a bokk bi <laughs> nga ne bi yow nasaraan bi yow sarayen bi yow way gëm bi boo gëmee yàlla gëm bi su peñ man amana billahi wal yawmil akhir mooy nga gëm yàlla gëm bi su peñ nga ne léegi yow te ñoom gis nga yàlla de daf leen spécifié maanaam da ko leeral mu ne amul layam layam waaw ñii yàlla tudd ne ñoom ñii bu ñu gëmee yàlla ñoom ñii te sax takkoo di def lu baax di def lu yàlla gërëm ñoom ñii bi su ñoom ñii bu ñu am lu ñuy njàqare bu ñu am njàqare yàlla da gërëm da leen teral waaw ko ñu sant yàlla ndax yàlla wax jooju wax firndal na ko tey jamono bi may wax ak yéen yàlla jël na doole joo xam ne doole jooju yàlla rek moo ko am kattan mu di un catholique orthodoxe ku mën loolu loolu kan moo ko mën seen xam-xam yu gàtt yi seen diine yu cëkk parce que da ngeen koy doon Abass Sall sama baay donc man nitu diine laa Serigne Touba ma jur may nitu diine laa Alaaji Malick sama man mi nga xam ne ma dara ab làppato laa noonu noonu la mbir mi doxee noonu ngeen koy dégg yéen ñëpp doomi làppato yi fekk demewul noonu demewul noonu najaas yi sumbul kooku mooy najaas yi mooy buuru Màkka bi mooy buuru Éthiopie Éthiopie buur boobu buuru catholique la woon bu maandu kene bi ñoom Jaafar yoon sallallahu alayhi wa sallam ne leen daw leen génn Màkka ndax boobu ñëw nañu doole ñoom ñoo njëkk a dégg nga maam euh, daw génn Màkka yoon sallallahu alayhi wa sallam daw leen parce que boobu stratégie daw boobu daw mboq mais daw pour mucc la daw la pour parce que amuñu doole dañoo néew doole bu ñu fi nekk di xaru am na loo xam ne xaru la nit du xaru keroog buur boobu nga xam ne mooy najaas yi di buuru catholique bu maandu bu nekkoon Éthiopie gii ñuy wax tey yàgg lool xel mu len fat gannaaw bu len leen déglu xam ne ñii lii wax ci na ñom ci dëgg lañu dox yalla lañu gëm ak yoon salaa salaam di yàlla yónni gëm nañu bisu penc gëm nañu keroog bañ ko waxé na bi nga xamna buru catholique la mom keroog bañ ko ko waxee ñoom ne ko ñun yalla ji ñu gëm ba mu wax da leen yéen maa ngi bokk yalla yalla seen yalla ji moy sama yalla ji comme na dañ leen bu doxata ci makka ngeen daw ñew fi làqatu ci ci def leen ko ne makka dëkk leen fi daiman ki reñ leen fi laal dara leen fi met ñom jaafar tok sallallahu salaam wasallam sàmm yonte bi am dikke kookee def loolee est-ce que moom ak Mouhamed Lamine Sall bi ñoo bokk déggin kooku xam kooku moo xam yàlla mais mu sotti la almaktum waxoon nee na doomu ko raamal di ko jox àdd yi yëkkati mu toog ko ca kaw ñoom ñu nekk ne nga toog yow sa làmmiñ di wax xamu ci diine nga yàqu najaasi moom nga xam ne moo kere ñi njëkk gàddaay génn màkk yonte ne daw la ngeen mucc ndax ñu mëna mucc ndax bari ñu tax duñu ray musiba am te diine nga faral taw la ngeen o moy ngeen mucc ko yamal lañu dem dem ni fekk fa buru bañu wax najasi mu fat leen bam leen dégloo ñu wax ko ñom wax ko wax joo xamna kaddu dëgg la te dëgg mooy alxaq te moy yalla kere boko buru ba déggee te buru kafir dana yeen seen li ngeen ma wax de ci seen diina ji seen diina ji ak sama diina ji donc diina lañu tudde way ben rek ñun ñoko tudde diina parce que ñoo amul vocabulaire ñu olaf waye seen pass pass bi bu ngeen bëggee dégg seen pass pass bi ak sama pass pass bi ben pass pass la man ak yeen li ñu wuutale mi ngi mel ne li ma li dox sama diggante sama takk ndeer mu nekk mu nekk kon lu jafe loo xam ne mënu ko ràññee mu nee na muy leen sama seen diina ji ak sama diina ji wala boog seen pas-pas bi ak sama pas-pas bi ndax diina moom benn la li leen wutale takk ndeer la takk ndeer mu nekk kon loo xam ne lu ñu mën a ràññee sax la fat leen yiir leen aar leen dundal leen ñu bokk Mouhamadou Lamine Sall moom xamul loolu de da ngay seetli ñoom ñooy takk rajo yi nag di lekk at yéen nit ñi naan sama bàyyi ëpp sa bàyyi xam-xam yaa maa la man ma parce que Sall la sant Mbàkke la sant si la sant lee la sant dara parce que ay doomi làppatoo rek nekk ci réew mi topp seen ginnaaw leen jox seen addiya bu ñu juree seen doom jox leen ñu képp man ma lank na man bokkuma ci kon xam-xam dafa jafe ndax xam-xam dafa ñaari mbir la xam ak xam boo gisee olof bi ne xam-xam newul xam de xam-xam la wax lu tax mu ne xam-xam lu tax olof ne xam-xam te newul xam rek parce que benn xam bi benn xamu xam-xam bi xam bu njëkk bi mooy xam mooy jàng ba xam jël jël jël jàng xam beneen xam bi mooy li nga jël jël di ba jàng ko noo koy jëfandikoo beneen xam bi culture générale la xam-xam bi mooy li nga jàng ba xam ko beneen xam bi mooy am environnement bi nag xam culture bi nag li nga xam nag léegi noo koy restituer noo koy méngalee noo cay dundee benn xam bi mooy lay jël la ba xam beneen xam bi mooy li nga jël ba xam ko léegi noo koy génnee pour mën caa dund xam ci diine la moo xam ci moo tax ñu tuddee ko xam-xam waaye bu doon xam dong ci xam rek la yam wala dana xam xam benn xam bi mooy looy jëfandikoo pour xam ko beneen xam bi ci topp mooy li nga jël ba jëfandikoo ko ba xam ko léegi nag noo koy jëriñoo na nga koy jëriñoo loolu beneen xam la kon nañu moytu bu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy déglu ñu nekk ci télé di teppeeku di wax parce que dañoo am ay sant parce que diwu leen diw diw leen diw te xamuñu yàlla ragaluñu yàlla lu ne ñu koy wax ngir am poñet oto bu lay jox chèque bu lay jox kër gu lay daggal ci suusu wakaamsee ak yu bare maletu xaalis bu ñu lay jox nga taxaw weddi lépp loo xam ne moom nga waroon a xeex wala sa baay doon ko xeex nga taxaw ngir am poñet parce boo ko waxee keneen ak man ñii xanaa nga xam ne man sama njàng bëtul ñun daal ñoo am fitu taxaw naan dee du ni keneen ku ko fi wax tey nga dee dina yàlla ji mën ngaa xotti xormay dina yàlla gi du mujj fen waaye ñoom seen maam yeeg seen yooyee boo ci duggee da nga xam ne lépp dëgg la ndax doomi làppatoo yi takk nañ leen saret ñoom ñëpp takk leen ay saret kenn du wax waaw MC Lida waaw loolu moo lay xamal ne ñi waaw loolu moo jaadu MC Lida rappeur la Abba Sall la ko jur mais rappeur la mais loolu moo jaam loolu loolu garaawul li garaaw mooy nga jàpp ne man Serigne Touba moo ma jur Serigne Touba Serigne la man Serigne la looloo loolooy wax ji Abba Sall ma jur sëriñ la man sëriñ la Alaaji Maalik ma jur sëriñ la loolu mooy garaaw loolu moo tegul fenn waaye Alaaji Maalik ma jur man ab rappeur la Sëriñ Tuubaa ma jur man ab ingénieur la Abba Sall ma jur ab rappeur la loolu lu war a mën a nekk la loolu loolu c'est pas extraordinaire li extraordinaire mooy Sëriñ Tuubaa sëriñ la doomam yëpp ay sëriñ lañ Sëriñ Tuubaa dafa baax doomam yëpp a baax sëtam yëpp a baax ñëpp a baax loolu moo amul fenn Alaaji Maalik dafa baax ñëpp a baax loolu amul fenn Abba Sall sëriñ la doomam yëpp a baax la preuve am na ay doomu rappeur am ay doomu médecin ñi am ay doomu kenn ku nekk loolu mooy dëgg li dëgg mooy kii nekk rappeur kii nekk sëriñ kii nekk lee kenn ku nekk nekk li nga nekk waaye amul ku yàlla may nga nekk li nga doon say doom nekk la nga nekkoon say sët nekk la nga nekkoon say sëtaat nekk la nga nekkoon amul fenn ay dóor la du dëgg ay tappale la du dëgg loolu amut amut waaye caaxaan la doomu docteur docteur surtout docteur docteur sëtaat docteur docteur doomu baykat baykat surtout docteur baykat ñëpp baykat kon kooku baykat yi jëm ak ñi gën a nekk ci suuf ñi nga xam ne amuñu dara loolu du dëgg loolu moom da ngeen koy nangu du dëgg ay tappale la ay dóor la mafia la c'est une mafia casar voilà casar yi may wax seen mafia mafia euh, casar yi may wax ni ak li ñoo yem benn lañu ñoo bokk ndey casar yu weer lañu ak casar yu ñuul képp ñoom ñëpp ay casar yeen lañ lu leer laa leen wax amul dem dik ay dóor la ay naxaate la mafia la c'est des casariens noirs c'est <clears throat> tout la sainteté n'est pas héréditaire loolu mooy li am wilaaya e du lu ñu doonante ay caaxaan la voilà kon loolu laa amul lu may wax tey di leen nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar di wax ne daañu ci dikkaat donc bi mooy épisode 2 bi daañu ci ñëwaat épisode 3 en attendant les négociations donc de en Biélorussie en ce moment avec les deux délégations ñu ngi déglu di xool di suivre nag ah di xam parce que tamit bon il faut ñu topp ko parce que ñun sori nañu ah mais nag la xew Ukraine tey ji ak Russie dafa am une dimension mondiale c'est l'avenir du monde qui en dépend l'avenir fi àdduna bi jëm suba ñu aju foofu c'est pas un endroit anodin c'est pas une crise mineure c'est une crise majeure par rapport à l'avenir du monde moo tax ma koy ko toll ma di si ñëw di ci indi sama xalaat pour que ken bañ leen nax bu len ken bobu yobale media yi dañoo bari doole réseaux sociaux yi et puis la masse des informations le flux des informations ni muy dawee dafa gaaw gaaw bo xamne ne bu ngeen gindikuwul bu ngeen kii dañ leen nax ko leen yóbbu leen taxañ leen sànni yalla ba du ngeen xam li xew bu leen apprécier wala ngeen juger te li ngeen juger xam leen lu doon c'est important c'est fondamental donc motax ma di ci sonn ci wax ni lu metti la mais bon loolu la ma yàlla nattoo mënuma ci dara sama mission dama ko dox voilà kon épisode 3 bi dina en fonction des évolutions donc de la <clears throat> négociation <clears throat> de la négociation qui s'ouvre là depuis <clears throat> Biélorussie on va observer on va voir en attendant bon restons sereins calmes et concentrés et puis déterminés à nous battre pour que la vérité triomphe la vérité triomphe la vérité triomphe vérité y Yalla ci film ku ko neex la koy génne tay aduna bi yépp ndar képp ñaari camp fi am l'axe du mal et l'axe du bien l'axe du mal moy ñi bëgg dal ci kaw Trump ci ko Poutine moy l'axe du mal ñom ñëpp gis nga complotori l'axe du bien nak moy benn nit bi taxaw tay na du fi amé muy putin yalla nak dem len ngeen xol alquran fu mu tuddé mbolo rek musiba la cay teg musiba yalla mom juk mbolo jublu motax fu mu tuddé mbolo musiba la cay kon ñoom luñu bari bari ñoom entre complot sanction yi ngay dégg yépp bu mu tax ngeen tiit yoy yépp yëpp dañuy xoqatal waye taxaway putin taxaway borom bi subhanahu wa taala la ma leen wax lu leer nañ la te day am dam ci fimu jëm parce que li gëna a ko yalla defal mooy yalla da koo jox doole da koo waajal jox ko doole bam taxaw mu soko yëkëti ku and ak mom da nga and ak yalla yoni ku ñaka and ak mom da nga and ak xex yalla muy iblis lii rek moo ci am ñun bu soobee yàlla luñ ci xam ci suñu am na luñ ci xam loo xam ne dañ ko lu ngeen ci amit indi lu ci waaye xam indi voilà kon na leen yàlla sàmm yéen ñëpp sàmm Sénégal sàmm adduna bi sàmm ba adduna bi mën a tegu ci dëgg ndax fen yi day bëgg a yàgg nag mën naa mat ay millénaire nag ay te ay junni junni junni junni at yoo xam fen yi dafa war dakk nag yëkkati boo day am daaneel yëkkati boo day am daaneel tëgg moo gis rëmtam bitam joo day mujj taxaw ki ki tëñax lay mujj tëñax rem tam bi rem tam bi tam ba tëñax fa lay mujj ñii nag dañoo toll ci seen tëñax kon ñu baleen leen ngeen noppalu di leen ñaanal yàlla mu sàmm leen ñu fi dajawaat ñun ñëpp fii incha allah bokkaat euh, waxtaan wi kon euh, ni ñu ko defee saa ne rek FMI version Chine Russie et alliés <laughs> yow sama gore yow sama gore yow <laughs> yaa ngi ubbi beneen bunt waaw baax na incha allah yooyu yëpp na nekk mais yooyu xam nga fa jëm yow da ngay anticiper yow nga fi jëm foofu ngay ubbi nii mais fu ñu toll àgguñ foofu foofu lañ jëm foofu ñom ñom paré nañu yooyu ñom ñoom foofu lañ jëm dañu nar a indi benn bipolarité donc du monde FMI fi FMI fee xam nga Kadhafi waxoon na ko une banque africaine euh de développement boo xam ne wala boog benn banque mondiale boo xam ne moom mo ngi def xaalisam yooyu yëpp waaye yooyu yëpp fi mu toll nii foofu lañ jëm nii bu t'inquiète pas yi ngay wax yooyu yëpp di ko junj yooyu foofu lañ jëm mais d'abord xeex àdduna bi moom buy soppi ko guerre day am moom bu la ci kenn ndax Sénégal dong ñoo bëgg lépp dox te weñ du dee waaye ba àdduna bi sosoo ba léegi évolution àdduna bi yëpp boo ko xoolee l'évolution du monde est une évolution donc marquée par des guerres ce sont les guerres qui changent le monde guerre mooy changer àdduna bi saa yu na lay saa soppi ko ci guerre la jógee moo tax bu leen ragal guerre bu leen ragal moom ñu bari dee nañ ñu bari ngi suuf wàññi leen dara bu ñu waree dee dañuy dee bu ñu deewul ci guerre dañuy dee ci leneen rek dañuy dee rek comme nit nag day dee rek moom na fexe ba dee ci loo moom dana am njëriñ daal ku dee moom day fexe ba dee ci lu am njëriñ bu amul a ba fan yi incha allah leen yàlla sàmm